نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nu ngi dellu di santaat sunu borom subhanahu wa taala nu ngi bàkk sunu borom di ko kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom moo ko jagoo nu ngi musulu ci sunuy mbon mboni bakkan ak sunu njaawte di jëf ñu ngi seere ni ku yàlla santala gindi na kooku aji gindee ku la ba faawu te dara mënatu koo gindee dëngloo ci képp suñu borom bàyyee ak boppam ba mu tànk kooka daal di tànk lay doon ba faaw te dara mënatu koo gindee ci mu ngi ñaan borom bi soo kala mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi kon ñu ngi sant suñu borom bi mu defaraatee tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru alquranul karim xam ngeen ni la zilna taxta dilli suurati nuur dañu di nekk ci ron keppaaru suuratu nuur suuratu nuur mooy saaru lumière mooy saaru leer mooy saar bi nga xam ni borom bi soo tax daf ko tuddee leer ndax luy leeral xolub julit da cee ne borom bi daf ko tuddee leer ndax dafay leeral këju kërëg aji gëm yàlla daf ko tuddee leer saaru leer ndax yàlla ci boppam ci biir saar bi lay wane melokaanu leer ak boppam dañu mel kon saar bi laa sokkee ne saar la bu màgg bu ngeen fàttali ko bañ tàmbalee ba tey saar bi ñu ngi ci bëgg a yàgg waaye dafa mel ni saar bu mat a yàgg la ndax li ci daje ci ay njàngale yuy defar aji gëm di defar xolub aji gëm di defar kërëg aji gëm wuute léegi na ko ak yeneen saar yi moo tax ni ko sunu borom tijjee ak jagleel gi mu am moom suratul nuur beneen saar am ko dafa mel ni suratul nuur borom bi daf koo degal defal ak jagoo ci biir saar yi amul lu ñuy werante ci ni kaamil bi sunu borom moo ko wàcc alquran bi yëpp it sunu borom moo ko wàcc waaw kon lan mooy lay sunu borom tànn benn saar naan bii saar maa ko wàcce te ñun xam nañ ni saar yëpp moo leen wàcce xam nañ ni alxuraan bi moo ko moom waaye saar bi dafa am ay jagoo yu wuuteeg moroomi saaram saar bi dafa dajale loo xam ni beneen saar bu dut moom dajale woo ko saar bi dafa ëmb ci ak leer loo xam ni leneen amu ko suñu borom ni suuratu saara ngi boo xam ni anzalnaaha bii moom maa ko wàcc moom mu ne yeneen it moo ko wàcc léeg-léeg doomu aadama bu tànnee ci biir ak njabootam mu ni kii day sama doom la kii moom maa ko jur est-ce que day tekki ne yeneen doom yi juru leen déedéet waaye leneen la muy tekki mooy kii am na place ci xol kam tànn nag kii moom maa ko jur te moo jur ñu ci des ñëpp kooku am na place ci xol sunu borom kon bu dee fa moom mu ni suuratum saar bi anzalnaaha nun yàlla ñoo ko wàcc wa faradnaaha te ñun ñoo farataal li ne ci biir ci ay àtte muy li ñu war a exécuté war koo jëfe kon gis nga njàngale yu ruqantaan yi ne ci biir saar bi yëpp xamal ni jub jëfe la la war a sant mboolem njàngale yi la ci alquran jub jëfe la sant waaye njàngale yi ci saar bi amaat yeneen jagoo wa faradnaaha muy ñu yàlla ñoo ko farataal mooy jàng jub jëfe mu ni wa anzalna fiha ayatin bayinat laallakum tadakkarun kon aay yi bayinat dafa firiñ ci ko dafa leer yaakaar naa amul kenn koo xam ne ñu ngi topp ànd ak ñun tafsir bi ci am na leen lu lënt te moo ne am na yeneen saar yoo xam ne ñu ko tafsir ba lu lënt xam ngeen ah ayat mutashabihatun hunna ummul kitab wa uxaru mutashabih ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa uxaru mutashabih alquran dafa am aay yoo xam ne wax muhkamat dafa firi ci ku leer nga xam ne bu ñu waxee nga xam ne lii lañ na ma wax wa uxaru mutashabihat am na aay yoo xam dafa am ab lënt loola nag bu ñu bëggee jàmm dañ koy delloo ci borom xam-xam waaye saar bi moom yàlla dafa def li mutashabih daanaka am ci lépp a leer ndax aayaatin la ko yàlla def bayyinaatin muy lu leer laallakum tazakkaruun ngir ngeen mën a wax xam ngeen ni lii waaye son nañ ko waaye boo gisee ma jaaraat ci lépp a tax lu ci sunu borom teg atte bi mu njëkk a wax mooy azzaaniyatu wazzaani njaalokat bu góor ak njaalokat bu jigéen man tey toll waxoon naa leen luy njaalo waxoon naa leen musiba yu rëy yi njaalo mën a andil nit ci ko def ak musiba yi mu andi ci biir famille waxuma la yow de sa biir famille sa biir famille rek da ngay indi ay musiba ca ñoom waxuma la ak àddina bi te it bor la bu nuy fayee nag wa man yazni fii fii bayti imri'in bi bi bi dirhamin fa sawfa yuzna fii baytihi bi nisfi dirhamin wala boog ku njaalo ci kër jaambur joxe ñaar dërëm bis bu nuy njaalo sa kër dañuy xaajaat loolu ci digg ba genn wàll dërëm lañ fay joxe ndax bor la bu nuy fayee te lu gën a bor lañ koy fayee njaalo day lëndëmal xol day lëndëmal gis-gis day jéq wërsëg day waral doomu aadama ci li mu waroon a am ci leer gu bàyyi koo ci yàlla manqué te it nag day am cap ak yëg yàlla gu newoon ci xolam boo xam ne bu rocceekoo tuub dana tax a baaxaat de waaye nag pour mu delloo si waat nag moom dana jafe lool moo tax ku yàlla dimbali nga nekk góor takk sa tubay wala nga nekk jigéen takk sa skumba ba dugg ci néegu sëy ci musoo njaalo allahu akbar wallahi yàlla defal na tawfiq ju rëy yàlla defal na tawfiq ju rëy a rëy ndax njaalo mbokk yi posan la da lay posane posane saw xeet posane sa famille posane saw askan posane sa réew kon yàlla la gën a rëy la tudd ngir ñu xam ni nii la ba mu noppee nag ci saar ba fi ñu taxaw nag léegi te lii moo tax nag xikma ji tax ma delluwaat ci bopp saar bi bii dem léegi nag li ñuy jàng ci saar bi yépp léegi nag nan la ñuy def ba njaalo du am li ñuy def ba njaalo du am ci moytandiku ko mboolem li ñu jàng ci saar bi yépp ci ñag yi yàlla yi ñag ba njaalo du am la bokk bokk na ci finition bu garaaw bi mu wax ni nañ ko def ku jaalo loolu tiital na ñi nga xam ne ñoo doon mooy yàlla mooy yàlla bu doy ni njaalo ba tax ñu ba ñett yi nga xam ne borom bi taala ni nga ko def mooy bala ngaa dugg kër jaambur na nga yëglu te na nga bëgg ndax mën ngaa dajeeg loo warul dañ ndax jigéen awra la te awra ci kër lay làqatu te mooy buntab njaalo yàlla bi mu santaanee góor ñi nañu sajj seeni gis loolu ci tëj bunti njaalo la bokk te léegi ba léegi mi ngi saar bi te wees nañ ko jigéen ñi kadaalika bi yàlla tuddee ay nit allahu akbar xoolal yàlla muy commencé di faram-fàcce sa baay sa ndijaay sa baay baayam sa yaay sa yaay yaayam wala sa sa yaay baayam sa mag bi nga bokkal ndey ak baay sa rak bi nga bokkal ndey ak baay wala koo xam ne yaa moom yéen xoolal faram-fàcce gi yàlla di ko def pour lan ngir wane kan moo war a gis sa taar ak ku ko war a gis ndax ki war a gis sa taar saa bu ko gisee rek buntu njaal ci jéegu kon faram-fàcce bi ci buntu yi ñuy tëjee njaalo la bokk ba léegi yàlla di tere jigéen buy dox bu mu karab karabi ci ay tànkam ba góor ñi di jégg takkaay ya mu takk na muy yëngoo ndax fit na mën a judd bu mu par koobu génn yooye tamit ci caabi yi ñuy tëjee buntu njaalo la bokk xale bu góor boo xam ni daa toll ci ràññee awray góor awray jigéen kooku bu mu fanaanti moo ku mbokkal ndey ak baay bu dee jigéen la waaye bu mu bokk ak ay góor bu dee jigéen la fanaan bu mu bokk ak ay jigéen bu dee góor la fanaan lii lépp wa farriqu baynahum fil madaaji comme ni ko yonent bi yàlla jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba léegi ci saar bi te li may wax lépp wees na maa ngi ciy jaaraat ngir fi ma bëgg a yegg fi ma bëgg a tàmbale wa ankihul ayaama minkum ñi amee jànk ci kër gi ay jànk ci kër gi jànk ji toll ci sëy nan leen mayee sunu amee waajum gis ni kii ku baax la bul xaar mu ñaan si la jabar na nga ko may jabar ndax léegi rek tey buntu njaalo daal di tëj ma waxoon leen ne ba ñuy tafsir laay ji ni l'islam li muy santaane mooy jigéen bu amee fukki at ak juróom jëm kaw nan ko mayee mu dem loolu nag ci jamono bi ñu toll tem jamono yi nit ñi xabaar yi ñu koy jàllale ci média yeeg ci lépp nit ñi di ko wax ay nit di toog di défendre ak comme ak ak yelleef doomu aadama di xeex jigéen ju teel a tëy waaw bu la neexee nga xeex jigéen ju teel a tëy waaye da ngaa fàtt ni sa maam daa teeloon a sëy moo tax mën a jur sa baay sa yaay daa teeloon a sëy moo tax mu mën laa jur yow kon bu la neexee nga suppi jamono yow waaw waaye sa maam daa teeloon a sëy sa maam bu góor ak sa maam bu jigéen dañoo teeloon a takkante moo tax ñu teel a jur sa baay sa baay ak sa yaay dañoo teeloon a takkante moo tax ñu teel laa jur waaw yow nag yéex la takk lu la neex defal beneen bi ci des mooy maye ci boppam tënkuwut ci am alal da ngay gis waa ju baax ju ragal yàlla te loolu moo doon am démb wallahi mbokk yi yu bari yu doon am dafa xew da ngay gis ñëw fekk waa ju baax ju ragal yàlla joo foog ci moom ni kii day sa jàng di fanaan ci biir këram jar na lu ne nga yëkkati sa doom may ko ko nettali woon naa leen ci nettali Saïd ibn Musayyib ba ak ndongaam lam doon jàngal may ko doom may ko jabar joo xam ni doomi buur ñëw na di ko ñaan si mu bañ la tax mu bañ mooy sama doom bu sëyee kër buur xam naa fu ndiggam di fanaan mooy ci kaw lalu oor waaye xaw ma fu fas fasam nar a fanaan waaye bu ma ko mayee ndongal xam-xam koo xam ni maa ko yar maa ko jàngal xami jikkoom kooku xam naa ni ak ndiggam mën naa fanaan cig ndës mbaab der waaye xam naa ni fas fasam moom du fanaan àll kon nii la salafu saalih doon xënte woo démb ci fexe maye teel a maye waaye tamit bañ caa teg ay conditions yu diis beneen bi ci mooy yombal can yi yombal can yi ba léegi mi ngi ci saar bi te lépp rek ngir bëgg ñi war a takk takk ñi mën a takk takk ñi mënta takk jéem ngir jaaloo rek sëju ba léegi mbokk yi est-ce que yéen a ngi ànd ak ma di def taxaw seet ni ba léegi yi ñuy wax lim bari bari bari bari jaaloo rek lañuy la ñuy tëjal jaaloo la ñuy tëjal ay buntam waaw njaaloo moom mooy kan njaalo moom jan musiba la mën a am ci askan ba ñaar fukki bunt ak juróom ne ci kër gi ñu ne tëj leen bunt yëpp balaa njaaloo génn loolu mooy xale bu tëj xale boo xam ne bu génnee tasum réew kër gi buntu kër gi tëj leen buntu veranda bi tëj leen fenêtre ba tëj leen saal ba tëj leen loolu mooy li may wax lépp saal lu tax ñuy tëj ba pare wutub gardien teg ci buntu ba ndax njaalo la ñuy bañ mu génn ndax bu génnee tas réew mi kon moo lay wan ni njaalo ni mu nekkee musiba ñi koy def sax xamuñu ko allahu akbar doy na ci musiba mooy li ma la wax sànq leer dana génnee ci yow koo xam ne ilaa yow yubaasuna bu la yàlla di bëriwul dëgg dootul déglu si waat bokk na ci misaal yi ba léegi maanaam bañ a forcer ndaw ñi ci ñuy caaxaan xale yu jigéen waaye dañuy digal ñu sàmm seen ak ndaw bal sax la doon am ak lii am léegi daa wuute soo demee ci Buxaari ak Muslim xadis bay wax ni yént yàlla mu ni sallallahu alayhi wa sallam umu atiya ko solo umu atiya mu ni yént yàlla daf ñoo digal ci julli iid tabaski korite nañ génne al awaatib ah wal xoyyab wa zawat al xudur bu ñuy julli ci iid nañ génne jigéen ñi gis baax nañ dem nañ génne jàng jeeg njagamaar yi ñi nga xam ni ñoom ci seen biir kër lañ daan toog kenn daawul génn dafa mel ni kon boo daan gis xale bu jigéen bu toll ci sëy tabaski nga koy mën a gis mbaa korite même bu ñuy yónni sax kenn du ko yónni déglu déglu nañ leen génne lu tax parce que dañ leen tëjoon ci kër yi waxuma la arab yi bala nga naan a aaday arab la ndax nit ñi dañoo gaaw ci loolu mag ñi newoon fii laa nga xam ne ay jàmbaar la ñoon ci dund la leen yàlla xamal te diine ñu di ko dund te dalañ yem da ngay gis ku tabaxal kër dafay tudd lu am lu ñu tuddee tappaat wala ca gannaaw nga xam ni fa la jigéen ñuy dëkk mu defar kër gi ut buntu kër samp këram ci digg bi li may wax du ay léeb de fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun laaj leen saa yi jot a bay jaaw fii ci réew mi xam nañ li may wax góor gi day ñëw ba ci digg ëtt bi samp fa mbaar mbaar moo xam ni néeg bi du doon benn bunt buntu sarala lay doon li may wax fekkeewu ma ko waaye xam naa ko ne néegu néegi buntu sarala lay am buntu fee buntu fii buntu bu jëm ci buntu kër ga buntu bu jëm ci jigéen ñi beneen buntu bu nit mën a jaar génn du am budul besam ku jëm ci jigéen ñi da ngaa jaar fi moom jigéen du génn daa xam yaay kan lii may wax wallahi ay nit yoo xam ne yaakaar nga ni ñii xamuñ sunna xamuñ nàngam ma ne loolu lañ doon dund ngir sàmm jigéen ab bàjjen ab bàjjen nettali na ma ni sol nay jamono jigéen ju sàggan ba sab lupp feeñ da nga ko yendoo jooy ba ngoon jot ab bàjjen nettali na ma ni ma góor gu sàggan ba tàpp la góor gu sàggan ba tàpp la di nga jooy ba xëm ca lool lool ay fan nga feebar ndax lu tax kii di ma yàpp ba di ma tàpp góoru jàmbur tàpp jigéeni jàmbur allahu akbar ndax ñooñu daanañ joxante loxo kon góor ak jigéen te lislaam tere ko déedéet ndax ñooñu góor dana ànd ak jigéen maanaam damay génn ak moom déedéet ndax danañ farantu comme ni ko waa xeet wi defee déedéet waaye yooyu yëpp buntu la yoo xam ne ñoom dañ ko doon ñàkk comme ni ko suñu borom ñàkkee beneen bi ci des mooy borom bi subhanahu wa taala ci biir saar ba léegi ba bii nu yegg ci laaye jii ñu nar a dugg suñu borom yàlla mi ngi leeral ay mbir yoo xam ne day waral ñu dellu ci yàlla subhanahu wa taala tëj buntu yi nga xam ni mooy indi njaaloo ak ay safaanam ak yeneen musiba yi nga xamante ni am na kon bi tawfiqi rabbina subhana su fekkee aw ma fàtte ñoo ngi taxawoon ci laaye juróom bukkeel ak juróom du noonu la kon nu ngi tàmbalee ci بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سنو برمو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم sunu borom yàlla subhaanahu wa taala ci laaye ji ñuy tàmbalee sunu borom mu ginnaaw bu mu faram fàccee feeñ ci fi nu war a jaar ba am ngërëmam ak foo xam ni buñ fa jaaree dañuy jéppi dañuy mere suñu borom ni bu loolu lépp jàllee ci def li la war ci wattu njaaloog buntu yëpp mën a tijji yëpp wa aqimu salaata na ngeen di taxawal julli wa aatu zakata ngeen di joxe azaka wa atiu rasula te ngeen topp yonent bi laallakum turhamuna bu ngeen ko defee yàlla dina leen yërëm ñetti mbir yi wa aqimu salaata di leen taxawal julli wax naa la min gayri ma marra alquran ba alquran daj daanaka julli leen doo ko dégg ndax julli yomb na ñépp a ko man déglu bu baax li may wax xóot na jege na dama ne alquran ba alquran daj doo gis yàlla nag dee leen julli ndax julli ñépp a ko man waaye yàlla li ñu wax mooy dee leen taxawal julli julli mooy lu la neex defee ko ko waxtu wu la neex defee def ko bu la neexee def bu la neexee bàyyi loolu mooy julli waaye dee leen taxawal julli mooy di ko def te dëkk ca te doo ca amee bor boo ca amee bor da lay rëcc te boo paree tuub te it boo koy def da nga koy defee na ko yonent doon defee loolu mooy wa aqimu sala looloo tax fa waylu lil musallin ñëw ndax julli ba nopp ñu lakk la ci sawara métti na lool suñu borom mu ni fa waylul xur ci sawara lil musallina ñeel na jullikat ya moo tax ci ilmul qiraa dañuy tere taxaw foofu fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahuun foofu dañu fiy tere wax moo tax saay saay ba dana wax fa ma qaala rabbuka waylun li ula sakiru bal innama qaala waylun lil musallin waajo daan naan bañu cat benn waaraatekat ni ko eh baal naan sàngara booy dee da nga dem sawara ma ni ko eh dimbali ma fa ma qaala rabbuka faylun li ulaa sakiru alquran ba alquran daj doo fekk fu yàlla ni xur ci sawara ñeel na ñi doon màndi xam nga yàlla waxee wu ko noonu waaye mu ne ko nag bal innama qaala waylun lil musallin yàlla nee na xur ci sawara ñeel na ñi doon julli daan dem yoon gis nga kooku caay caay fa way bal innama qaala waylun lil musallin yàlla nee na xur ci sawara ñeel na ñi doon julli dem yoonam moo tax loolu ñu ne la fii ci njàngam alquran dañuy tere taxaw fa da ngay continuer kon taxawal julli mooy di ko def ca waxtu wa di ko def ca na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye doo yem ca loola mooy doo ko faat te bu la faatee da la rëcc te boo paree fay ko tuub jullee ngoo ku dul julli na nga bokkul ci lislaam ndax ku dul julli yéefar la wala du yéefar moom borom xam-xam yi dañ cee juuyoo juuyoo bu yaatu te kenn ku ca nekk ca mbooloo ma waaye man bu ma doon tànnal jullit ñi fan lañ ko war a génne man dama naan sama proposition boobu sama xel mu gàtt nañ koy génne ci weeru koor nga ne ma lu tax ma ne su fekkee tiyaaba rek nga ciy wut te koor moom boo defee benn ñu fay la junni ah kon kay damay bàyyi sama alal ba koor ma doog a génne azaka ndax su ma génnee azaka waroon a am junniy tiyaaba ma am fukki junniy tiyaaba mi ngi noonu alal ji bu amee at bu amee at ñu bari nag liñ foog nekkut dañoo foog ne da ngay denc cinq mille mu mat at nga génne ci asaka déedéet cinq mille matul nisaab de cinq mille boo ko dencoon ren ba déwén doo ko génneel asaka xaw ma nag fekk boobu nag xaw ma fu ñu ko déggee ñaar téeméeri nag nga di génne ci juróom man xaw ma ko moom du loolu bokkut ak li mu jàng de beneen bi ci des it mooy boo dencee juróomi junni ba at mi dellu si nga génneel ko asaka déedéet juróomi junni kenn du ko génneel asaka matul matul ak nisaab man nga caa génn loo tuddee sarax nag li may wax mooy xam-xam de lii mooy wér-wér dama ni deux cent cinquante mille boo ko dencoon ren ba déwén bu la neexee bañ koo génne asaka parce que matagul ni saab de xam naa li may wax nag gert na gaa yu bari na li may wax gaa yi foogoon loolu dama ni trois cent mille boo ko dencoon ren ba déwén bu la neexee bañ koo génneel asaka sarax nga koy génneel nisaab faw alal aqal jege na six cent nangam mille moom ngay denc ren ba déwén man maa fàtte fi ma toog nisaab bi nu mu war a tollati ci CFA waaye noonu lay toll nga doog koy génneel azaka leneen la ngay génne nag sarax la sama gileem yi ma yar bu ma amee juróomi gileem juróomi gileem la génne azaka doog a tàmbali benn bu ci nekk ak lañ ko war a génn damay bañ mu jël suñu wax boo amee ci ay nag boo amee fanweeri nag ak juróom commencé génne azaka boo amee ci ay xar ñeent fukk ah commencé génne azaka kon gis nga azaka ni ko nit ñi foogee ak ni mu nekkee boobu beneen bi ci des mooy su dee damay bay dugub laa bay ma bay ba dugub di jeex dama koy génneel azaka azaka yi wa aatu xaqahu yawma xasaadihi su fekkente ni dama am fukki ah téeméeri sabaar téeméeri sabaar fukk yu ma wàññi rek fukkeel ba laay génne fukki sabaar yu ne rek juróom-ñeenti sabaar ma ni fukkeel ba tegal mooy azaka ñaar fukk ak juróom-ñeent ma ni génneel benn mooy azaka ba keroog téeméeri sabaar yooyu mat su dee nag dama doon bay karoot nga xam ni ndoxam taw mi tawalu ko ndoxam suuf see ko tawal nga xam ni fii coono bi ma ci def daa double coono bi allahu akbar mbokk yi yàlla yàlla baax na de xanaa yàlla baax na sax di ko ko wax na nga naan li nga wax mësta wax sax wax ñëpp xam nañ xoolal yàlla bu la tawalee danaan la fukkeel bu ne fukkeel bu ne génne ko waaye bu fekkee yaa coono wut ci ndox mi sonn roote mu ne ah xaw ma jax la sa ñaq xaw ma jox la saw ñaq fukk bi xaaj ko ci digg bi genn gi genn wàll gi saw ñaq la genn wàll gi génne ko asaka lii may wax nag lu xóot la boo delloo ci borom xam-xam yi jàngale fiq danañ la ko faram-fàcceel lu gën a yaatu lii ma lay wax kon waatu zakat ngeen di joxe azaka bu azaka jàllee nag denc trois cent mille ren ba déwén tekkiwu ni mooy du ma ci génn dara ankay da ngay nekk waa ji baax boo dencee trois cent mille ren ba déwén nga ne alhamdulilahi rabbil alamin man kat ndeke maa ngi waa ndax sax ndax nit mën naa denc trois cent mille ren ba déwén ci jamono ji loolu sax laa war a laaj te te gëm yàlla ne ci xolam man loolu lay njëkk a laaj ba pare dëgg la boo dee borom alal ju baree baree bari taxoo may wax ndax kooka denc la trois cent mille yomb nag tëjee la ko war ma nga koy def donte du mën a def lépp waaye mbokk yi jamono bi ñu toll fuqaraa yi mel ni man ak yéen ku ci mën a denc trois cent mille ren ba déwén masamba këram gi lakk fi sa trois cent mille ni nuut du wax ndax xam ngeen xaalis moom fa nga ko denc moom du wax dara moom te it benn ñaar ñett la nga dem fa xool ba xam manqué wut kañee jinax yi jaaruñu beneen bi ci des mooy denc trois cent mille ren ba déwén sa mbokk mi accident bi mu wóor la ni ku néew doole la ñu nekk hôpital di fa jaabante nga seeti ko ñaari yoon ñett te saa boo demee aw ñaar téeméer nga koy jox doom kese képp rek nga xam ne mënta jënd benn garab ci garab yi léegi lu dul lu néew trois cent mille yi nemm fam nemm nga lekk ba rek sa morom fanaanee ñàkk a lekk te nga yëg ko trois cent mille yi nemm dama ne sa ngëm yàlla des na amoo ngëm yonent yàlla bi nee na ku fanaanee lekk ba regg ba denc te sa dëkkandoo xiif nga yëg ko te defoo ca dara te man ca dara yonent yàlla bi nee na amoo ngëm li ma wax du sama wax de ay tegtal laay wax baat bu ma wax bu soob yàlla daa am tegtal kon fexe di sarxe weer wi nag mooy weeru saraxe nag yonent yàlla bu weeru koo dikkee lay mel ni kar riixil mursala ndeysa foo ko fekk day joxe rek Omar mas na kaa yeddee lu mel noonu daa joxe joxe ba li mu yor jeex benn waaye dikk ni ko man de bàyyiwuma dara kër ga mu ni ko toogal xaar xéewalu yàlla Omar ni ko yonent bi yow da ngaa mën a sonal sa bopp rek yow li nga amoon joxe nga ko kay sa jaan wàcc na bàyyi ko mu dem fa Omar di waxee eggalu rek benn waaye indi dàmb ak tàndarma gu fees dell ni ko yonent yàlla bi seetal ku ko aajo nga jox ko ko yonent bi ne xool Omar ree ni ko lu ma la waxoon moo tax ñi ngay kemtalaay ñi ngay gaan-gaanee tiyaaba yàlla di la ko indil ñi ngay gaan-gaanee mbaax kemtalaay safaan ba it wala aksu bil aks kon ab julit dama ne bu dencee alal lu matul nisaab la cay génn di jox ñenn ñi allahu akbar moo ne am na amaan na amaan na wala àlla ndax wallahu yatawalla sarairu amaan na yow yaa ngi ne fii di sonn di woor di ne fii di sonn di julli waaye gis nga boo ko xamoon boo xamoon la xew dëgg-dëgg fa yàlla daanaka coono bi ngay def da nga koy def ndax dalaa war waaye dootoo ko defati lu tax amaan na benn waay nga mas a xitili ci jafe-jafeem yi rek yàlla mu ne yow moom defal naa la vingt sur vingt di nga dugg àjjana ca lool te yow yëgoo ko aw waaw ab caga ku ko gën a bon ci cagatu ji ba tourné romb xaj bu yalkat ndax mar mu summi dàll koketam summi musóoram takk ca ndax yërmande yoor ca teen ba jox ko mu naan yàlla mu ne ko yow am nga sens yow naroon ngaa tàbbi sawara waaye di nga dugg àjjana ah gis nga kon ndeki benn jëf ngay jëf rek fekk yàlla kontaan na ca ba say dossier moom moom épingle nañ ko ba teg ko maanaam daal amatul vérifié nañ ko pare xam nga booy wasaaroo mooy kenn vérifié gu waaye yow say dossier moom vérifié nañ ko ba épingle ngeen ko teg fa di la xaar maanaam daal iqra kitaabaka wa duxulul janna nga defee yow nag yaa ngi julli di sonn di woor di nangam ci xamoo lu xew nekk boo xamoon lu xew da nga xam ne ci waa jana nga bokk moo tax defal rek i'malu jëf leen i'malu jëf leen fa sayara allahu amalakum wa rasul yàlla moo di jëf leen rek yàlla moom mi ngi gis kon waatu zakat nañuy joxe azaka wa atiu rasula nañuy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp yonent bi du mooy buñ ne Muhammad nga ni sallallahu alayhi wa sallam dama ne Muhammad gën naa màgg fotta suuf sallallahu alayhi wa sallam gën naa màgg fotta suuf waxuma li nga def baaxul de waxuma loolu de waaye dama ne lim soxla ci yow ëpp na loolu nit ñi nag dañoo gaaw boo waxee benn baat rek ñu yóbbul la ko foo bëggul woon a dem waxuma lii baaxul waxuma loolu dama ne Muhammad soxla na lu ëpp lii ci yow fan nga jàng ci sunna ni saxaaba ya bu ñu musaan a dégg Muhammad dañ naan sallallahu alayhi wa sallam est-ce que yonent bi rek bu ñu waxee nga jaayoo jóg fottasu cekki ñax téeméer joxe addiyey Muhammad déedéet Muhammad lim soxla ci yow du genn guddi gàmm Muhammad ëpp na ñu koy jagleel benn bis di ko tuddee mawlidu nabi di ko gàmmal yonent bi ëpp na loolu sallallahu alayhi wa sallam ah yonent bi soxla ci yow nga jël ci moom ni ngay lekkee ni ngay naanee ni ngay toogee ni ngay nelawee ba booy jonkan dem wan ak na ngay jonkanee allahu akbar benn yëgul mu ni yéen di seen yonent bi man damaa mel ni cinéma rek moom lu ne dana ko jàngale moom da leen a jàngal mu ne ko wax nga dëgg de daf noo jàngal ba jàngal na ku dem wan ak mooy laaboo faf na waaye daan wawut lu mu xasaatee ah far nu wendam loo ko ndax Muhammad yow Muhammad amul ci yow lu dul foo déggee Muhammad ni sallallahu alayhi wa sallam Muhammad amul ci yow lu dul bu weeru gàmm gi jub see nga jënd sa mbasin suub ko tey jigéen def ko lu muy rayax rayaxee te yonent bi ngay ne moom ngay fett su loolu da koo tere bi ngay dem gàmm ga da ngaa parfum te yonent bi day tere jigéen génn parfum bi ngay dem da ngaa meesu yonent bi da koo tere da ngaa xeesal ba xonq cooy ba média yi xam nañ ko bu ñuy génne léeg-léeg ci télévision yi gis ngeen ko xam ngeen li may wax du ay léeb ña gën a xeesal di jabaru sëriñ sa ñoom la ñuy teg caméra yi te l'islam di tere góoru jàmbur fixé jigéenu jàmbur di ko xool nga ne yonent bi ngay màggali ba nga génnee l'islam day tere góor ak jigéen di jaxasoo ñu gàmm gi moom lambi golo la fu waay nekk rek baax na ñii fee ñee fee sorko sorko ji ah yonent bi day tere fecc day tere way te feccay magam way te dama ni waxuma la way waaye dañuy feccaale sax koofa nee nañ dañuy màggal yonent sa sala ah kay gàmm sax nag léeg-léeg nee naay moo yoxal yonent bi saa sallam day wax ba mu yàgg ab jigéen jóge fële bokkal ko ba noppi daal di koy fóon doog a dem xam ngeen li ma wax mi ngi ci télé bi yéen a ngi koy gis ñu ne yonent bi la ñuy gàmmul moom la ñuy màggal dama ni bu fekkoon ne dañu naan lii dàqu na ci lislaam te amaluñ ko benn tegtal yu dul yii ma wax rek wakafa biha doy na sëkk ci ay tegtal ci dàqu la gën a métti ci xol nag mooy yonent bi lam baax la lépp daanaka yonent bi lam soxlawul ku ko wax rek lañ ko koy waxal moo wax loon mbëtt ma moo wax doxloo garab ga moo nuur la woon fas sura xawa dama ne loolu ñépp a ko xam xam nga luñ soxla nga jàngal yonent bi nu mu doon jullee nu mu doon wooree nu mu doon joxee azaka sa xeesal gee sori ma yonent bi tere jigéen juy xeesal waaye doo ko wax sori parce que boo ko waxee sori ma liñ lay duyal sa poste dootul ñëwati ji Sénégalais ci boppam moo baaxut lay yëngal xolam du yonent bi nii la doon jullee faw nga wax ay xar baax ay xawaariq lil aada su ko defee seen yëngu-yëngu am ñu génne alal jox la gàmmkat bi bu xamee loolu xam ngeen ne loolu lay wax bis bu ne daa dox ba fi nekk def origine bu ko defee taabal ji du fees faw muy wax lay yëngal xolu nit ñi loolu du wa atiiu rasula de du mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp yonent bi mooy imtisaalu ma amara bihi wajtinaabu ma naha anhu wa zajar li yonent bi digle lépp nga di ko def lim tere nga di ko bàyyi képp bu gàtt yonent bi da koy tere mees yonent bi da koy tere xeesal da koy tere jigéen parfois génn da koy tere lambar lambar yi ki góor joxante loxo da koy tere góor jàmbur ak jigéenu jàmbur ci àndi caaxaan islam da koy tere ah ak ak ak lima lima lima lépp li ñuy def yépp yonent bi da koy tere sallallahu alayhi wa sallam te ñanga ca ba pare nee nañ moom la ñuy màggal dama ni màggaluñ ko waaye dañ koy merloo sallallahu alayhi wa sallam billahi alladi la ilaha illa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dekki woon fekk fi lii ñaari mbir yii gin ñaa ci yàlla dana ci def benn dana leen waar ñu dellu ci yàlla wala mu dekkal jihaad ci seen kaw bu yeboo ñuy askano ne ñoo ñooy waa kër muhammad yaay waa kër muhammad te le muhammad ba ñun lépp ngay def ah ah saxaaba ya néewatuñ fa am na yoo xam ne buñ fi nekkoon ba léegi dañ na abdullah bin mas'ud ndeysaan sëriñ bu mag toog ci jàkka ji toog ci këram ba mu yàgg benn ndongoom ñëw ci jàkka ji seen groupe fii groupe P groupe P kii naan wax leen subhanallah wa bihamdi téeméeri yoon kii naan wax leen alhamdulilah ñaar fukki yoon ndongali sampu xelam ndax daa tiit ndax ñoom ah ñoom seen seen xol yi seen xol yi bidaa da ko doon yàq mu daw ci Abdullah ibn Mas'ud ni ko addik ummata ummata Muhammad allahu akbar daw ci lu gaaw gàttanu xeet yi balaa ñoo al xoolal li mu wax ñooñu lu ñu doon def dañ doon jaamu yàlla mu ni yëpp na abd yaa abdallah yaa aba abdillah adrik ummata muhammad dawal nga gatadu xeet wi tatafu leen balaa ñoo tàng mu ni ko maa jaam lu xew mu ni ko maa nga fekk ca jàkka ja benn nit bu taxaw naan leen kaay leen def nangam ci lim nangam lim kee yore kurus kee yore kii kee yore naa kii di wañ ñee di sabbal fii ñii di sabbal fee ñi def jaamu yàlla goo xam ni muhammad xamu ko woon déglu bu baax njàngale yi ci nekk xam da ma son ni ko waa loo leen wax mu ni ko waxuma leen dara ndax loolu du sama wàll loolu mooy teggin ci ndongol xam-xam boo gisee loo xam ni ka ko war a wax a ngi fi noppil boo gisee loo xam ni ka ko war a diglee ngi fi noppil moom na ko digle boo gisee loo xam ni ka ko war a tere mi ngi fi noppil mu tere ko boo gisee loo xam ni ka ko war a dindee ngi fi bàyyi ko mu dindi ko loolu mooy teggin moo ne moom am na xam-xam bu mu leen waaree waaye sëriñ baa ngi fi tukkiwut demut fenn Abdoulaye Nassir ñëw dafa tiim mu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yéen li ngeen def lu mu yéen Muhammad daal yi mu doon sol mi ngi nii boo demee këram ñu wan la ko ndax barki démb la faatu yàggagul yéreem yi mu doon sol mi ngi fi ba léegi pënaxagul ndab yi mu doon defee lekk mi ngi fi ba léegi yéen ngeen sos ak jaamu yàlla gu bees xool luñ wax dégg bu baax xadis bi li ma koy fàttalee ka bari li ci nekk daa bari ci njàngal luñ ko wax dañu ko wallahi ya aba abdillah ma aradna illa alxayr ee yow bàyyi abdillah jéet waaye bul wax liñ def bon na moo ne ñun yiw rek lañ ci doon jublu ñun bëgg ñoo mooy yàlla mu ni leen rubba muridin li xayrin lam yusib aka bari ku bëgg tiyaaba waaye du ko am lu tax lu tax parce que yoon wam jaar moo dut woowa aha ah da ngaa jàpp ni képp ku def ak jaamu yàlla rek yàlla fay ko dama ni ñaari charte yi bu amul ci jaamu yàlla yàlla du ko nangu benn bi mooy lan al ixlaasu ñaaral bi mooy ban al mutaabaa faw mu sell kenn du ca am cër faw mu dëppoog na ko professeur bu mag bi doon defee muy sallallahu alayhi wa sallam dama ni gépp jaamu yàlla goo xam ni ñaari mbir yi dajewu ca sell ga amu ca dëppoo naag dëppoo ak na ko yoon doon defee dama ni alaaji ku ko fi indi ah ajaratu ku ko fi indi comme ni ñu koy waxee tur yi ñuy joxe sëriñ bu ko fi indi ndongo lu ko fi indi taalib bu ko fi indi dama ni googa jaamu yàlla day dem ba àllaaxira yàlla def ko nam doon wax wa qadimna ila ma amilu min amal fa jaalnaahu habaan mansuura yàlla da koy def sunguf suñuy jiri ci waxtu ngelaw kon waati ar rasul nañuy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ma duma borom xam-xam xaw ma nuñ koy toppee ma ne la yàlla nee na fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun laaj leen ñi xam su dee xamu leen léegi nag yàlla def na tawfiq ñi xam bari nañ lool ñi xam bari nañ lool waaye nag xusaas yeeg taakuraankat yi bari nañ lool de na nga fexe ni nga ni nga ni nga defee gis nga ana sama portable bi bii ba muy waaj a yàqoog léegi mi ngi bëgg a yàgg waaye ba léegi nanguwuma koo joxub defarkat mu ci jikko xam ngeen lu tax dama ci wóoluwut kenn fi mu ne nii yàlla xam na wallaay li may joxe misaal lu am la kii am na lu ci yàqu bul tuuf bi dafa yàqu waaye ba tey li ma xam ci defarkat damaa lànk nanguwuma koo jox kenn ndax wóoluwuma ci kenn ah waaw sa diine ji moom kon nag nga su fekkee man sama matériel àddina bii nga xam ne damay dee ba mën a lay def ci kon wóoluwuma ci kenn ah sama diine gën a yay de taaxuraankat yi bari nañ yuuxukat yi bari nañ ah léeg-léeg da ngay dégg loo xam ne da ngay yéemu sax waxoon naa leen sa xista ba dana ah imam ahmad ibn hanbal ak yaxya ibn ma'in benn waaye daa toog ci jàkka ji naan dégg naa ci ahmad ibn hanbal déggee ci yaxya ibn ma'in ñu ne ko wax subhanallahi wa hamdi subhanallahi al azim yàlla da koy def am picc picc bi day am juróom-ñaar fukki junniy laaf laaf bu nekk day tàbbal yàlla di la jéggalul fekk ahmad a ngi toog ibn ma'in a ngi toog ahmad xool ibn ma'in ibn ma'in xool ko mu ni waaw ahmad foo déggee bi hadis mu ne ko man kay musuma koo dégg ak a bari tey li may wax wallaay gën naa réer te bu ngeen xamoon li ne ci rajo bi bu ngeen xamoon li ne ci rajo bi ci ay wax subhanallah ahmad ibn hanbal ni waaw wëpp ni pëkk pëkk waaj yow ku la nettali xadis bi mu ne ko yaxya ibn ma'in ak ahmad ibn hanbal ahmad ni ko ah man de maay ahmad ibn hanbal yaxya ibn ma'in ni ko man de maay yaxya ibn ma'in te maa ngi koy doog a dégg mu ne ci koy yéen a topp rek yéen da ngeen defe ne àddina bi yéen doo nga fi ahmad ak yaxya wallahi rabbil izzati fan yi passé damaa jël oto dem Dakar ma dugg ku ñuy askanee diine xoolal wax yu réew yu xamadi yi ñuy wax ci saxaaba yam sa sallam waa ji xam nga lu mu wax mu ne yonent bi dañuy Omar kaay ma yónni la ca Makka Omar ni ko bul ma yónni damaa ëppal yónni la Ousmane wallahi ni ma ko waxee bil xarfil waaxid lam ajid wala anqus bul ma yónni damaa ëppal lii moom kenn nettali wu ma ko samiat bu udunaaya sama nopp yee ko dégg Omar ni ko yonent bi bul ma yónni damaa ëppal yónni la Osman baat bi ni ma ko waxee noonu la ko waxee dama ni lii mooy ñàkk yar ci saxaaba yi lii mooy ñàkk am xorma ci ku ñuy askanee xam-xam bu ma ne la woon diwa sax nga ni déedéet kon mbokk yi ni may def ba sama àddina may wóolu ña ma cay déglu ña ma cay jox ñu may defaral ña ma wóolu dama ne sama àllaaxira ca gën a yey moo tax saxaaba ya ba yonent bi faatoo jiital Abubakar dañ ne luñ ciy contesté koo xam ne yonente bi da koo wóolu ci li gën a màgg suñu jaamu yàlla yi muy julli ndax jiite te yonente bi faatoogu kon ku yonente bi doyloo te ali ma waxoon loolu ali ñu jàpp ne ali moo gën a yey ci ginnaaw yonente bi ak abubakar ali mu ni ku yonente bi doyloo ci li mu gën a màggale ci jaamu yàlla muy julli lu may def ba du ma ko doyloo ci li ma gën a màggale ci sama àddina na ma jiite kon gis nga topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lii ma la wax lépp loo xam ni jàng nga ko ñun la lii mooy sunna addina bi yépp buñ doon def lu wuuteeg loola def ko incha allah yàlla dana la fay ci yàlla lépp loo jàng mu ñu la mooy bida bu yeboo addina bi yépp maase ko yow nga juuyoog ñoom na nga xam ne yaay ibrahima am xeet wi te inna ibrahima kaana umma wa atiyaw rasula bu ngeen toppee yonent bi laallakum bu ngeen ko defee turhamuuna yàlla dina leen yërëm yàlla na yàlla boo leen yërëm moo tax al allaamatu saadi te damay dellu ci moom lu bari parce que allaama la fi tafsir al quran tafaatir yi bari na lool waaye boo delloo ci tafsiram da ci bari ay njàngale yu sew sew yu ca mën a génn li muy tafsir laaya ji ba yegg ci aaya bii ma la wax dafa wax ju am solo mu ni képp koo gis muy làmbaatu rahma yërmaande ci budut wa atiyaw allah wa atiyaw rasul nee na xamal ni kooka bakkanam ma ngi koy nax te dina daw ba deretam jeex yàppam jeex te du dajeeg rahmatullahi subhanahu wa taala ak a wax dëgg nit day nekk ci mbir sonn ca am ca pas-pas ak gëm goo xam ni tey boo ni woon Muhammad tudd aw saaga rek balaa moo dal ci sa kaw moom day njëkk xam kooku bëgg na yonent wala bëgg ko wallahi paate la bëgg yonent sa sallam waaye ndeysaan la muy def lépp ay bidaa la te bokk yi baa xam ngeen ni bidaa mooy lu nu def ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko jaamu yàlla di ko jaamoo yàlla te yonent bi xam ko jàppal régal boobu boo déggul arab déggal olof lépp lu nu sos ginnaaw yonent bi di ko jaamoo yàlla tuddee ko ko te yonent bi xamu ko woon saxaaba yi xamuñu ko diglewuñ ko wallahi rabbil izzati wal jabaruti loolu bidaa la kaay ma wax la xadis bu raglu ci bidaa nga xam ni da ngay gam-gam ne bidaat mooy yàlla kon bu gën a rëy yonent yàlla bi nee na inna allaha xajaba tawbata an saaxibil bidaa yàlla daa muur muuraay bul tuub muuraay bul tuub yàlla da koo muur def katu bidaa moom du mës a tuub bu amul sens xam nga def katu bàkkaar léeg-léeg ñu waar ko mu tiit jooy tuub waaye def katu bidaa booy wax du tiit du jooy du dem len day jàpp ni seytaane wa zayyana lahumu seytaanu maa kaanu yaxmaluun ba fayee na mu si dafa amaala ko seytaan daf leen di rafetal li ñuy def su ko defee yàlla muur ko kiiraayu bul tuub subhanallah da ngay gis ku giñ giñ gu dëgër giñ gu gu gu gu doy waar sax ci yàlla na ma yàlla rey ci li ma nekk allahu akbar waaw bu fekkee amoo loo wax sax bokk neen yàlla na ma yàlla rey ci sunna sax bokk santan moo tax da ngay dégg ku naan sunu mbooloo mi yàlla na ko yàlla dolli mu nekk mbooloom sunna mbooloo mi nu muy nekkee mbooloom sunna te bu ñu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënu nekk bu ñu naxante waay xanaa ñun dañoo déggul olof ko mbooloo mi yàlla na ko yàlla def nu nekk mbooloom sunna te duñ ci jàngale sunna duñ jullee na yonent doon jullee duñ wooree nam doon wooree duñ def nam doon defee suñuy jigéen a ngay lambar lambari ca mbedd ma mel ni ñu amut luñ sol dama ni bu dee yaa ngi askanoo bëgg yonent bi la nga wax amut xar ci sa tànk tubay tagg ci sa bakkan ngir li yonent mi bëgg na am sa kër te bul tiit dara ndax yàlla mi ngi ànd ak yow subhanahu wa taala ñi ko jéemoon réussir nañ kon wa atiu rasul topp leen yonent bi laallakum su ngeen ko defee turhamuuna yàlla dina leen yërëm yàlla na yàlla boole ci ñu muy yërëm laaya ji ci topp borom bi subhanahu wa taala mu ni laa taxtabanna alladina kafaru bul njortu mukk wala ngay yaakaar ni ñi féetéerlu ci tooñ ak mooy yàlla mooykati yàlla yi demkatu baal yi demkatu baar yi danskat yi naankati sàngara yi njaalokat yi ñu yorkaat ci caga yi ñooñu ñëpp di ay mooykati yàlla te tuubuñu ñoog yéefar yu xonq nopp yaak yéefar yu ñuul nopp yi ñoom ñëpp ñi dem ba ñemee yëkkati kaamil di ca saw ñi dem ba ñemee wax ni alquran ci boppam daa xeew yi waratuñoo àtte ñi def bay askane yonent bi ak bëggub jigéen la taxtabana alladina kafaru bul yaakaar ni ñii day muajizina fil ard dañu tëj yàlla ci kaw suuf moo tax ñu des ci ba tey allahu akbar léeg-léeg da ngay jaaxle sax da nga naa waaw yàlla kii lu tax bàyyi ko fi ba heure bi ah loolu kat jëpp laaj ndax lu tax bàyyi firaw na ba heure bi mu ko rey lu tax bàyyi amaana xaaru na ba heure bi mu ko rey xikmatum baaligatun fama tugnil nusur yàlla lu mu def rek am na lu tax laa taxtabana alladina kafaru mooykat yàlla yi bàkkaarkat yi bul yaakaar mukk ni mu'jizina fil ard dañoo tëj yàlla ci kaw suuf moo tax yàlla bàyyi leen fi ba heure bii subhanallah am na benn waay buñ may nett bi boo xam ni ku ko dàqoon a tooñ ku ko dàqoon a tooñ dàq koo mooy yàlla ci li nu xam ci ña ko nett li dafa jafe yàlla bàyyi ko muy tooñal xam ngeen gis ba mu faatu lu mu faatoo escouteur la war naan ba man di ni tap yaa ngi may dégg déglul baax li may wax xoolal yàlla ni muy defee dafa naan ba ni tap war a escouteur jàkkaarloo benn camion bu traverse ci ron gi la dugg xam ngeen li ma wax moom exteur bi ci ron camion bi la dugg bopp bi dafa tasa tasa tasa tasa tasa tasa ba loo dëgër loo loo dëgër dëgër dëgër xol doo ko mën a xool nii la ko yàlla rayee subhanahu wa taala te mooy katu yàlla bu mag la woon waaye nag kullu abdin yubaatu ala ma maata alayhi ku nekk la nga dee ca ngay dekki loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon laa taxsabanna alladina kafaru muajizina fi l ard waxoon naa leen sama dal tafsir yi am na kuréel bu ñuy wax alqaadiyaaniya ay alqaadiyaaniya ñu di leen wax al ahmadiya xawma ñi may dégg fii ñu koy woote woon ñoom laam déet ndax samay gëstu yëggagu ca xool loola loolu laam déet waaye bu dee moom laak bu ko dul moom kuréel ba moom al ahmadiya la tudd dañuy woote wa ak yonent seen yonent mi ngi tudd Mirza Ghulam Ahmad waa ji maa ngi benn livre buy wax ci dundam sama kër ñu desee ci ab xotom ab indi ab indo la indo la dëkkoo ah gis nga waa ji da doon woote wa ak yonent ak ya xew ci dundam xew ca xam nga bi ko yàlla na may rey nu mu ko reyee yàlla dafa def benn côté yaram bi dafa pan paralysé beneen biy dund dem àll yeeg taw bi doon génnee ci gannaawam ci gémmiñ gi la doon jaar ak bakkan yi di génn feebar na ko su ma juumut ñaari ak xaw ma ñetteel doog a dee loolu nag ñii wax ci dundam duñ ko wax waaye nag ma wax la ko fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun boo delloo ci borom xam-xam yi ñoom nga xam ne ulama siyar wa taarix dañ lay wax ni ñii la deexee wala taxsabanna allaha gafilan amma yamalu zalimun bul yaakaar ni yàlla dafa dafa yëgati wala daa néewal ci wolof mu ne yaakaar ne yàlla dafa néewal ba toppatoowul tooñkat yi li ñuy def mu ne déedéet innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi l absar daan bis bu mu leen di xaaree boo xam ne bët dina ci ba buqeeku muhtiina muqniina ruusihim laa yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa kon laa taxtabanna alladina kafaru bu yaakaar ni ñu weddi yàlla ñi lànkal suñu borom mu'jizina fil ard dañoo tëj yàlla ci kaw suuf déedéet yàlla ku nekk daa am lum la fi teg parce que yow ah doo sànq bi ñu la war a lakkee ci safara loolu ngay liggéey yàlla da lay bàyyi ci sa suuf ngay def sa mbon ndax mat ba la war a lakk faw nga taxam ko àjjana dama ne ku nekk taaxam kaw ma ngay dugg yaa koy tabax yàlla nag loo bëgg mu gaaw bi jëlem saay saay te moom mat mi ko war a lakk taxana bu ko xanaa da ngaa bëgg bu demee duñ ko lakk lu bari déedéet faaw mu daxan matt mi ñu koy lakkee toogaat fi aw fan am jot gum jëndee ji almet bi ñu koy kotee toogaat fi aw fan móolaat fi ay birig yuñ koy sancee ci biir sawara sax bu lépp matee nag nga xam ni mbugal ma mat na nag yàlla doog koy faat moo tax it yow it faw nga jéem a fexe noo tabaxee sa àjjana ja boo dee dugg fa suñu borom muy ma'waahumu naar seen dëkkuwaay mooy safara bu ñu faatoo xanaa loolu kay doy na lan lan ngeen gën a xam lu gën a metti mbugalum sawar waxoon naa leen ci yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla xam nga bu dee ci àjjana ja dañ naan la benn jigéenu àjjana bu tapli woon mu ni fatt ca géej ga taplil wa suukar ndoxum géej bu dee kooka ca àjjana la nekk kon de waxuma kooka rafet na waaye damay wax ni fam nekk da neex na bu dee kër gëm génnee ka fa génn fu mu tëfli ci géej gi géej gi toppli ku suukar dama ne kër gëm génne neex naa dëkk sawara yent yàlla bi nee na benn waay bu yàlla ni woon ba xër ñëpp mu génne sawara mu ñëw fekk ñu suñu jàkka ji noonu la yent waxe fekk ñu suñu jàkka ji mu noy zafir ak shahiq da ngay xëcc oxygène génne yent yàlla bi nee na lim jotoon a denc ci tàngoor bu ko génnee of ni ko ñun ñëpp ay dee billahi aleykum baydal min xarayni wal xarashin faxi bakkan yi ni mu nooyee ni mu seddee ba aw kawar des sax ba seytaane loolu la xam tax mu di fa fanaan ba yonent bi ni boo yeewoo na nga saraxandiku ndax seytaane fa lay fanaan bu fekkente ni der bu nooyee noonu ba seytaan di ko taamu fanaan fa ngelaw jaar na fa loo xam ni ku ko noyyi keneen dana fa jaare dee kon ka noyyi ngelaw la foog ko génne nu mu mel moo tax yàlla mu ne wa maahum naar seen dëkkuwaay mooy nekk safara wa bi sa doy na almasir fañ mujj wa bi sa bon na almasir fañ nar a mujj kon kay jeexal wa bisa almasir ah wala bisa almasir wala bisa bon na almasir mujjantal ga muy fan yi mujj yàlla yàlla musal na ci mbugal kon sunu borom nag tàmbaliwaat ci jeneen laaya joo xam ni noo ngi delluwaat ca lañ jóge woon muy teggi ni suuratu nuur ba léegi rek maa ngi doon wax ci mooy yàlla mooy yonent bi nekkoon ci ay xéewal yàlla remplacé fa ay safaan yooyu yëpp bokk na ci li koy waral mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yonent bi bokk na ca mooy lim digle nga bañ kaa def kooka musiba lay jural nit ki loolu tamit ci teggi ni njàngalay teggi ni suratu nuur la bokk laaya ji laaya ji kéemaane la ci alquran kulluha kéemaan alquran léppam kéemaan la gis nga bu la yàlla defalee tawfiq te yàlla na yàlla defal la ko bu la yàlla mayee dégg-dégg ci alquran te yàlla na yàlla defal la ko bu la yàlla mayee nga may tadabbur alquran te yàlla na yàlla defal la ko dama ni aaya joo taxaw doo fa jóg ndax aaya joo dem mën naa ubbi rëbi na xel li ba tey bagaan fees te beneen rëbi naa nga ca fekk ba gis nga laaya ji yàlla daf koo dogal laaya ji am na morom ab seex la seexam weesoon na laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha kooka mooy jeex bu góor ba bii mooy bu jigéen ñoom ñaar ay seex la waaye léegi faw ñu teqale leen parce que seex bi li muy liggéey ak seex bi ci des li muy liggéey bokkul seex bee ñëpp lay waxal ñëpp nit ñëpp d'une manière générale ci ñëpp seex bii nag li ko tax a jóg ñeen nekk ci biir kër gi comme ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy wut te ku nekk am na bànqaas booy liggéey suñu borom teqal leen doxale ay aaya ci diggante bi wallahi bokk na ci xikma yi mooy ngir nga gën a comprendre li ngay jàng ndax buñ jaxasee aaya yi li nga dégg fii ak li nga dégg fee dañoo nuroo mën nga leen a jaawal ci fekk bokkul suñu borom jox na bee ba nga jàng ko ba mokkal ko ba xam ni ñee ko tax a jóg mu dawal ay aaya tuuti indiwaat bii ngir nga xam ni bii ñeneen na ko tax a jóg wallahu alimul hakim ku xam la ko xeree la moom suñu borom suñu borom ah yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ah liyastazinkum na leen di yëglu liyastazinkum nay fëgg tey nuyoo balaa dugg alladina gaa ñi nga xam ne malakat aymaanukum seeni surga lañ wala seeni mbindaan wala seeni jaam ñoom ci nit ñi lañ bokk wala bokkuñ ci nit ñi ci nit ñi lañ bokk waaye ñee aam lañ ñii xaas lañ ndax ñii mën na lim lépp ñee mën na lim mooy fii ba Kong Hong Kong fii ba Chine fii ba Taïwan ñëpp ñoo dugg ci aaya bi waaye ñii nag sa biir kër la li yastazinkum na yëglu alladina gaa ñi nga xam ni malakat aymaanikum sa surga la wala sa bëkk néeg la wala sa mbindaan la wala sa góoy la wala sa wala sa wala sa tur yi ngeen koy tuddee te ñuy liggéey ci yow sës ci yow rëkk ñooñu walladina ak gaa ñi nga xam ni lam yablugul xulma àggaguñ ci âge bu ñuy mesurer salaata marratin ñett ci yoon balaa ñu dugg sa néeg nañ fëgg xam ngeen lu tax lii ndax ñett ñi dañoo sës ci yow ba dañoo am autorisation heure bu ne sañ nañoo dugg sa néeg ndax dañ lay soxla nga di leen soxla ñett ñi dañoo sës ci yow ba dañoo autorisation autorisation heure bu ne dañ koy dugg sa kër ci heure boo xam ne bu doon jaambur ba newoon ca aaya ba du ko ñëw sa kër yàlla mayoon leen heure bu ne ñu dugg sa néeg tey nag yàlla ne leen ah ba mu nekk ñetti heure yii nag heure yii bu leen ko duggati seen néeg njaatige déglu leen aaya ci bu baax alladina malakat aymaanakum mooy jaam bi wala mbindaan bi wala bëkk néeg bi wala secrétaire bi noo ko tuddee baax bi wala dina lam yablugul xulma mooy xale bi majeur a gut mooy ci gént gut ki gént gut nag góor wala jigéen ku ci dem ba toll ci majeur mën naa tëdd mu gént di sëy am ndox mu génn ci moom mu tudd mu tudd man yi bu dee ci ku góor ka day weex tal mel ni xaaxi léeg-léeg mu xeeñ xet ak mooñ léeg-léeg mu xeeñ xet ak nen bu dee ci jigéen dafay xaw a sàcc genre te mooy gën a tax bu góor bi yii ma ta xam la ndax ahkaamu taklif da caa lool waaye ni ko nit ñi foogee faw nga am ay nangami at doog koy am wala yooyu déedéet comme ni ko yenn téere yi waxee su ma fàttali ko téere mel ni téere yi ñu jàng bi mel Ibn Ashir day wax ne aw bi tamanin asara xawlan zahar déedéet mën naa bañ a àgg tamanin asar mën na ko ëpp tamit tënkuut ci am gisut baax gént ak góor ak jigéen ak mu kallaf tënkuwul ci at waaye mi ngi tënku ci nit ki soo demee ca bëj gànnaar ak bëj saalum wala feneen ña ne fee ak ñi ne fii ni ñuy génnee du bokk da ngay gis fii gone ak juróom-ñeenti at di gis baax nga dem fële gone ak fukki at ak ñett mooy gis baax kenn talaay nit ki fi mu nekk lu mu tàngee tàngoor day jeexintalu gaaw a génn sikkimam gaaw a génn weenam gaaw a masoram kenn talaay fa mu nekk lu mu def seddee day def jeexintal tamit ci kooram wallahu alimun hakim kon ñii bokk ci kër gi li yastazinkum na yëglu alladina gaa ñi nga xam ne malakat aymanukum seeni jaam lañ walladina ak gone yi nga xam ne lam yablughul xulma majooragum salaata marratin ñetti yoon ñetti yoon ci bis bi nga ni ban ak ban mu ni min min qabli salaatil fajr avant ñuy julli fajar lu tax ndax daa fekk ngay doog a yeewu te ku yeewu mën ngaa yeewu waale du la neexul ndax nelaw moom ndawal yàlla ah wa xiina tadauna siyabakum min aldahira ak waxtu njolloor wi ñuy noppalu ndax waxtu nelaw la te kuy nelaw it mën ngaa mel melokaan wu la neexul ah wa min baadi salaati al isha ak ginnaaw di liggéey ndax waxtu wa waxtu tëdd la te ku fas yéene tëdd du bokk ku fas yéene tukki benn bu ca nekk di nga mel melokaan woo xam ne ma nekk la sax bépp du la neex allahu akbar yàlla day xam naa ne yaa baax de dama kaa ñemewu la waxati xoolal rek ñun suñu programme dund sax ni ñuy dundee li ñuy déranger lépp li ñuy déranger ñun xoolal bu baax déglu bu baax ñun li ñuy déranger ci suñu dund sax yàlla daf ñu koy dégager li ñuy arranger suñu borom daf ñu koy xëccal wallahu alimun hakim dafa mel ni daal moom daf noo digal ñu jaamu ko ba noppi mu nuy defal loo xam ne daa mel ni sax moom moo nuy jaamu fa te ñun ñoo koy jaamu lépp lu ñuy déranger bu nee déedéet na fi jóge lépp lu la arranger bu nee xëccal ma ko parce que damaa bëgg mu jaamu après ku yam intérêt bi yawaat kon kay moom amu ci dara bëgg la rek kon ñetti waxtu yii ginnaaw fajar ndax waxtu doog a yeewu la ab avant fajar waxtu doog a yeewu la digg njolloor waxtu xaylu la la xaylu la mooy tëdd bëccëg mbokk yi yent yàlla bi nee na xiilu fa inna shaytaana la yaqiilu defe naa sieste bi ngeen koy wax di leen tëdd bëccëg di ko noppal ndax seytaan du tëdd bëccëg tëdd bëccëg ka baax bul jàpp ne affaire tubaab la affaire déedéet waay waay yow yaa feebar naka ngay fekkee lu baax lépp nga bëgg kaa ak keneen yéebar yi bon yi déedéet xayru la njàngale yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam imam xasanul basri day yomb romb ca marché ba waxtu ba ca gaayee jaay mu ne cim ca prix ñii de bokk maa ngi ñoom nekk waaye xam naa guddi gu bon lan nar a am tey ñu ne ko lu tax mu ne xam nañ tëddun bëccëg te tëdd bëccëg day maye énergie bi julli guddi yéen ci yàlla mais dee leen tëdd bëccëg ndax tëdd bëccëg seytaane moo ko dul def ndax amul jotam moom budget mooy yàq moo tax amul jotam kon ab jullit daa bokk ci programme booy liggéey nag waxuñu la nga ne par force tey ma tëdd li gars yi naan moom faaw ma def ko war a tooba saxal mbaa ma sulli déedéet boo ko mënee defal soo ko mënut baal nga xam ne mënoo waaye de boo ko mosoon tey yenn doo activité ba wàcc jot nga ñëw julli tisbaar ak dal 30 minutes une heure temps nga jug bis booba nga ne mooy altine ëllëg nga def la nga defoon waxtu wa jot tëddoo nga jug guddi jot ci ngay xam ne inna seytaana la yaqiin ci ngay xam ne sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñetti waxtoo ngi nii yoo xam ni dañ ko war di yëglu suñu borom ni salaatu awraatin lakum ñetti awraa ngi nii ci yéen allahu akbar mooy arrangé wuñu nit ñi carat ci sa biir ne ci waxtu woowu dëgg la ñi ñeneen ñi ci biti moom taxuñ ñu wax ndax ñoom balaa kenn ñëw day fëgg day yëglu buñ ko waxee dellul mu dellu kon kooku aayam wees na waaye kii daa nekk ci kër gi nga xam ne njaati géem la day dugg ak a génn am andi demal ma ñëw kaay ma wax la kaay nga wax ma yooyu dañ koo seq nga xam ne duggalante génn la ñu ne ah ci kër gi nga nekk ci kër gi la nekk kon kaay ñu jox la aay boo xam ne yaa ko jagoo mooy sa njaatige li waxtu wii bul ko fa dugg ndax waxtu awra la dañuy bañ nga gis loo warul gis wallahu alimun hakim ba léegi ñu ngi sàmm njaalo alladina lam yablugul xulma xale bi majeur agul bu duggee ci néeg bi gis musiba ah waxoon naa leen ko fi ca saaral xale yi gis nga musiba yi ñuy gis ci télé yi chaîne yi xaw ma TV5 yi TV4 yi seen affaire yooyu xew liñ ciy gis moom la ñuy appelé da ngay xale bu jigéen boo xam daa njaaloo rakkam bu jigéen ba doom judd ci xam nga lu ko waral yaayam daa xëy soli soket liggéey bokk saagam bàyyam ngàmbub saagam finance ay dàllam ni mes yaay ji ni mente ñoom ñaar ñu des ci kër ga di sidantele ba seen ñaari nit yuy njaalo ñaari tubaab yuy njaalo ca suba sa ñu ni kaañ ko essayé li ñu gisoon lii rek la xale bi moom mboolem bit bit mbir yi nga xam ni su ko gisee mën na kaa jural musiba rek nañ ko ko dawal ban programme rek ngeen xam bu ngeen ma mën a wax bu am njariñ ci suñu télé yi ngeen gis ban programme ba ca ba ngeen yaakaar ni moo ca am njariñ mooy bi ma doon wax sànq waxat yow rasula mooy ba ñuy askan la yonent bi yee yee yaay te fekk la yonent bi bañ lépp lañ cay def nee nañ boobaa ci tane bi boobu man day man personnellement xamuma benn différence bu ne ca loola ak tubaab bay GFT gisuma mooy yàlla mooy yàlla xalaat bii daa ñuul bee daa ñuul bi yëpp yi gën a ñuul ak bii daa clair tuuti yëpp jëru ko mooy yàlla mooy yàlla la jeex na askanee nga ko diine askanee nga ko diine ñoo ci bokk yam mooy mooy la malaaka yi ñoom analyse yi ngay def di faram-fàccee ak firi ci ñoom du leen ci fekk ñoom kiraaman kaatib dañuy bind rek dem seen yoon fii laa ko fekk ak fee laa ko fekk ñoom intéressé wu leen lim la fekk ngay def looloo ko intéressé kon borom bi subhanahu wa taala mu ni salaatu awratin lakum ñetti awra la ma bañ ko gis sa awra ñetti awra la ma bañ xale bi fekk la ci lu mu la war a fekk su boobaa day yàqu ñetti awra la ma bañ sa mbindaan bi sa sa su bëkk néeg bi fekk la ci lu mu la war a fekk su boobaa or ma jam la joxoon dana wàññeeku ci xolam boo ko yëgee boo ko yëgul wallahu alimun hakim yàlla ko xel kon sunu baramu ni salaatu awratin lakum ñetti awra la ñeel leen léegi nag sunu baramu ni laysa alaykum junaaxun du ngeen am benn bàkkaar nag baada wala alayhim ñoom it duñu am benn bàkkaar baada hunna hunna ji ab damiru day dellu ilal ila salaati al awqaat aywa daa mel ni yéen a ngi bëgg a muus ko hunna damir ji day dellu ci waxtu ndax waxtu mu annas la baada hunna ginnaaw ñetti waxtu yi du ngeen am benn bàkkaar ci ngeen dugg ci ñoom lu tax tawaafuuna alaykum ndax ñoom dañoo bokk ak yéen lépp loolu la yent bi joxoon muus atte muus muus muus ci kër gi la bokk muus bu ko kenn futnaal bu ko kenn xorñoñal bu ko kenn génn kër gi ndax lii la fi dugal ko fi dugal loolu boo ko waxee gars yi na ñu ni muus bi daa xuusee daa ëppal ma ne lu mu xuusee xuusee doom di ko gën a xuusee ngi ci kër gi lu mu ëppal ëppal ëppal jur jur nga ko lu ko gën a ëppal te ba léegi génne woo ko te yeneen ci benn muus mi ci kër gi la bokk benn bi abu qataada dafa sox dafa génn soxnaam di jàpp ah de bàyyi abu xataada ñëw fekk soxna abu xataada ci kër gi mu ne ko damaa bëgg a jàpp mu may ko muy jàpp muus mi ñëw di naan mu ni sëp sëp mu ni koy dee bàyyi ko mu naan mu naan ba yeggal mu continué jàpp ca ndox ma mu ni waa kii li muy def nii mu ne yonent bi nee na innaha min attawafina alaykum wa tawafat tawafina alaykum say doom ak say bëkk nekk ci alquran min attawafina wa tawafat kon li fi dugal ñee moo fi dugal muus yi moo tax yonent yàlla saa sallam mu ni muus moo bëkk néeg yeeg mbindaan yeeg doomi cumbur yi ndaw ndawaan wala dina lam yeb loo sama ñoo bokk àtt ci kër gi moo tax ñu ni muus bu xabee ci ndab wala mu lekk ca wàññiwut dara wala xaj nga xam ne doy na ko ci mbon aw turam bu xabee ci ndab juróom-ñaari yoon lañ koy raxas bu njëkk ba ànd ak suuf boo ko def ngay jaay intelligent ak intellectuel ak ay bëgg xaj buy dàqeeg cinq message ci buntu kër géeg yooyu day xab ci sa ndab bàyyi fa benn me benn benn benn feebar benn sax boo xam ni ah six centimètres lay doon gis nga sax woowu foo boo jël omo ak lan eau de javel eau de javel coton seen yëpp waaw neen yëpp yi waa Madaar ak waa feneen yëpp di defal nga raxas ko ba yeggal dama ni microbe ak keroog loolu da koy doole doole xataa eau de javel gis nga microbe boobu foofa lay nekk foofa lay nekk ca ndab la nga yàq ca añ ñu lekk ko microbe bi jàll dem ba ca mujj ga placé wu sidit yi toxal raakol yi da koy bënn mbax da koy bënn day dugal benn xeetu feebar ci deret bi ak ak ak ak ak ak ak yi ma xam ci waxuma ko ak ak ak yi ma xam am na benn médecin tubaab loolu moo ko tax a tuub benn médecin tubaab looloo ko tax a tuub kooku de yàlla gindi na bi mu déggee lii dafa dem jël benn xaj jox ko mu lekk parce que xaj li waral loolu mooy xaj bu demee wanag ba nag day jël làmmiñam mar ko ci ginnaaw bi te sax yooyu ci ginnaaw gi lay génne su ko maree day taxaat ci gémmiñ ga boo ko fóonee mu jox la ko bu xabee nga lekk sa mu jox la bi mu jëlee affaire bi dugal ko ci biir laboratoire am li mu xam ci xeetu liquide yuy setal mu def ko ci setul mu jël suuf riix ko ca riixaat riixaat bàyyi jël microscope xool affaire bi ni nekk mu ne ashhadu an la ilaha illa allah ah yonent bi day appareil yee foor waay te amut woon appareil yu yoroon moo foor waay ci jamono joo xam ni benn appareil bu ñuy xoolee amut muy wax di sànni ci kaw jaww ji rek ñay gëm di gëm ñay ree di ree waaye dem nañ ba jamono firil ko ko sallallahu alayka ya rasulallah gis nga kon muus àtte boobu la yor suñu borom ni baada gun ne ginnaaw waxtu yi tawaafuuna aleykum ñoom dañuy wër ci yéen rek heure bu nekk mën nañoo dugg léegi moom nag am na am na lu mu sañ loo xam ne yow sañoo ko sama sama jaam ci sama kër ak samay doom yu ndaw am na lu ñu sañ te sañoo ko am na waxtu yoo xam ne sañoo ne dikk février doo dugg parce que ñoo ko fekk maag moom waaye yow sañoo ko moo tax ma ne la ñaari aay yu nuroo ngi yoo xam ni teqale gi leen yàlla teqale lu rëy la lu am solo la ndax dañ leen di jaxase moom nit la ci biir nit ñi moom nit yi ñoo bokk àtte bële ci kaw bu ñu demee kër jàmbur nit la ci biir kaw nit ñi waaye moom dong nga moom àtte bii su dee ci biir kër gi la nekk bàyyi leen xel faram-fàccee bu baax kon sunu borom yi tawaafuuna aleykum ñoom day dañuy wër ci yéen rek baadukum ala baadu tey nga def ko néegam suba mu def ko sa néeg ndax yéen a ko sénk suñu borom ni kadalika nii ngeen gis ma leeralee nii yu bayyinul ayat ni la yàlla yi faram-fàccee aay yi heure bii la du heure bee kii la du kee li ñuy arrangé les arrangé wu la moo tax benn borom xam-xam day wax ni kon jaadu na lépp lu nit digle nga indil ko ay preuve ba mu convaincre nit ñi xam ni lii tax lépp lu nit tere nga indi ay preuve ba nga xam lii tax nga tere ko mu convaincre nit ñi ah ndax yàlla dafa wax baagal ni salaatu awraati ndax heure yi awra la buñ fa duggee danañ gis luñ wër te gis kii li tax ma di ko tere fii lii la li tax may ko yeneen heure yi lee la kadalika lii lépp nag li ko waral mooy yubayinu llahu lakum al ayat yàlla daf leen di faram-fàcceel aaya yi di leen ko leeralal wallahu yàlla moom alimun hakim aji xam la aji xereñ la lii ba ko yàlla faram-fàcce yàgg la waaye jamono bu ñëw rek alim yàlla dafa xereñ moo tax jamono yëpp day dëppoog moom fi mu nekk nii boo delloo woon cent ans paa yi daan toog tafsir alquran lii may wax ni mu nu arrangé ñoom ña doon tafsir noonu leen arrangé woon te seen jamono sunu jamono bokkuñu dara ndaxte wallahu alim hakim dafa xereñ moom programme bi muy tëral programme la boo xamante ni jërub ñu koy voté waat parce que du sukkeeku du màggeel programme bi muy voté programme la boo xam ne nit ku ñëw da cay mën a dund loolu nag saa buñ ko wàccee dund gu xat gu xajam la ñuy am moo tax ñàkk a njàngale lislaam yi bi mu amee loo ci gis waxuma la mbindaan mi ci kër gi da ngay benn waay jóge fële ca àll ba ni saraa fekk la ngay sumleeku mu ni ah i baal la ah maa ngi jéggalu de waxoon naa leen fii baalu ma laa ci war a toog ndax kii day tay tay kooku dañ ko war a zajiri ni ko baalu ma la zajiri mooy tiitam lu tax parce que daa fëq mboolem yi lislaam tëjoon balaa moo yegg ci foofu kon kii ci biir kër gi li ko lislaam may bokkut ak kële la mu ko may yàlla na ku xereñ la ndax lii muy joxe ci ay àtte loolu mooy li gën fi ñun lu ci topp sunu borom la ginnaaw àtte yooyu kon gis ngeen loolu yëkkati ko nag léegi comme ginnaaw teqale naa ko ba noppi nag boo mokkalee bee mokkal bi da nga koy yëkkati nga dem taf ko fële ca aayat nu yow sunu borom la wa ida balaga al atfaalu minkum al xuluma gone yi bu ñu yeggee ci aadu majeur gannaaw âge de la puberté defe naa loolu la ko gars yi wax ñu jàng tubaab waaw kay waxtu woo xam ni jigéen ja ma ngay tàmbalee yëg lay tax jigéen di nekk jigéen mu gént mbaa mu gis baax mbaa ay weenam di génn góor ma ngay tàmbalee gis lay tax góor di nekk góor mu tàmbalee gis kawaru naq mbaa mu gént mbaa mu am ci ay at lu ñu toll gis nga sunu borom ni wa ida balaga su yegtee al atfaalu gone yi minkum fi yéen al xuluma waxtu gis baax waxtu xulmu gént waaw léegi lan lañ soxla ci xulum mooy majeur ba léegi xoolal alquran ni mu xereñee xulum moom muy gént daanaka buñ doon natt ci mandarga yi mooy mandarga bi gën a juste te gën a fës te gën a leer nga ne ma foo teg sa wax di man la fu leer laa ko teg mooy am na koo xam ne du gaaw a sax kawar sikkim kon bu ñu jëlee kawar sikkim mandarga dina am foo xam ne dinañ gaaw a yéeg dinañ yéex a yéeg mbaa ku ko dul am faf nag am na koo xam ni mën naa dem bay nekkub jàng ci ay weenam du génn am na koo xam ne mën naa dem ba nekkum ponkal te du sax kawaru nag waaye gént nag moom doonte am na ñu ko dul gaaw a def lu néew la par rapport ak yéene ba tax yàlla utilisé wul benn ci yii yépp ñuy xoolee majeur lu dul bii parce que bii moo gën a efficace moom comme ni ñu koy waxee ci yépp borom soo taala mu ni kon bu ñu yegtee ci alxuluma fi ñu waree tolloo ci gént beneen attee ngi ci suratul nuur ah xale bi tollagul ci gént luñ ko mayam waxtu wu ko neex saraax saraax tijj dugg du loolu lañ ko mayam parce que tollagul ci majeur xàmmeegul dara waaye loolu nag waxoon naa leen ca ba ñuy tafsir new naa nga gonee Dakar bokkul ci gonee Dakar moom laayo jii moom xaw ma yan gonee tax waaye gonee Dakar bokkul ci ndax gone goo xam ni juróom-ñetti at la am waaye lu paa yi xam-xam na bu dee jigéen lu meer yi xam-xam na ko kii kay atte yi wax dëgg yàlla tey góotul ci kaw ah maa la wax loolu da ngay gis gone subhanallah ci li ala bu doon loo loo loo dégg mën koo nettali wax li leen nga dégg gone wax loo xam ne da nga naan lii am na meer yu mag sax te xamuñu ko parce que xale yi xam na li leen nga dégg xale yi def xoma xoma alandeer wala ñuy tëbaka dal wala ñuy def seen seen xeeti jeu yooyu subhanallah ngay dégg ñuy way di wax ay baat yoo xam ne dama ni la am na meer yu naxandum yu ko xamut te gonay xam nañ ko gonay taax léegi sax du wax gonay taax gonay taax ak gonay àll ba yépp ndax média yi dem na fépp waaye gone daraan daraan yem ci nekkum gone gone daraan yem ci nekk gone di wax waxi gone di jëf-jëfi gone loolu nag xewi na léegi loolu moom léegi moom xewi na waaye comme gone yi bu fekkee dem nañ ba génn wala ñu toll ci majeur ah atte bañ leen mayoon jeggeeku na déglul faram-fàcce kadalika yubayna allahu lakum al ayat fal yastadinu nañ tàmbalee yëglu kama stadana alladina min qablihim comme ñi leen fi jiitu woon ci kër gi ñi nga xam ni ñoom lañ généralisé ci biti ñu ni ñoom it nañuy yëglu mu ni ñii bis ni ki tey dugg nañ ci nga ne lu leen ci dugal ñu ni majeur nañ ndekete xale bi ne ci kër gi su majeur agul may nañ ko yoo xam ne may ñu ko jaamoo ndax yow sañoo ñëw sama kër saraaf dugg ñàkk a fëgg wala yooyu sañoo waaye gone gi sañ na ko parce que dañ ni gone la donte nag dañ koy tere mu def loolu ngir di ko te yar pour bu màggee wa yunshi'u naashi'u sibyaani fiina ala ma xad kaana awwadahu lkibaaru mu ne xale yi suñ màggee kawar ga niy tax daa fekk mag ñaa ko ci jëmbat xale yi buñ màggee kawar gi ñuy tax mag yaa ko jëmbat seen bopp yi mooy ñoom liñ gis rek caméra lañu rek maa ngi fàttaliku bi may doog a tuxu si fii am na benn xale bu doon ñëw oustaz diw nga diw dégg nga diw mooy saaga ma ne ko lu mu la wax muy dañu ma toppal fële xoolal loolu parce que loolu mooy saaga ci moom daw xel ñëw fekk ma ci biir dégg nga diw di ma saaga ma ne ko lu mu la wax mu ne dana toppal fële parce que moom toppal fële aw saaga la ci moom subhanallah parce que liñ ko yaree la waaye boo demee biir Dakar fii li nga xam ne toppal fële du saagay gone Dakar da ngay dégg ñu wax loo xam ne mag ñi sax xamuñu ko kon xale yi ci bopp nañu leen tamal loolu bala ngaa dugg ci nekk nga fëgg boo dikkee fëggoon nu yow ma ni këj du ma wax ak yow nga ne ma lu tax ma ne yent yàlla bi ne ku tàmbalee wax soxla te nu yow bu ma ko faale damay seetlu boo ko defee xale yi doo ko wax sax génn moo tax gis nga yar ak am solo gis nga boo boo ko defee xale bi day génnaat dem ba ca buntu ba daal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ma bàyyi la nga demaat ba ci biir ne asalaamaaleykum wa rahmatullah daal di soroo ma ne këj bañ laa faale nga dema lu tax ma ne waxuma la bismillah nga delluwaat ne waat asalaamaaleykum wa rahmatullah bu ma nee bismillah nga doog ne ma wax ak yow gis nga boo ko defee xale bi ñaari yoon wallahi loolu da koy neex sax geste yi da ngay gis muy reetaan moo tax njàngale yonent bi rek moo wóor sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga ñii suñu borom mu ni kon yastadiru nañu yëglu kama stazana alladina min qablihim comme ñi leen jiitu woon nañu doon yëglu ah lu tax ndax ay ma majeur nañ te ku majeur nag commencé ràññee foofu nag am na at yu bari yu ko war bu doon dañ doon bokk benn lal buñ ko bokkati bu doon bañ doon bokk benn néeg buñ ko bokkati wa farriqu baynahum fil madaaji dafa am loo ko yéen tey waxee sallallahu alayhi wasallam ma al asafi shadid ñun nag moom li may wax bis bu nekk rek bi ñu bi ñu coloniser yóbbu suñuy xel jox ñu alali jàmbur ñu sànni alal yenent bi jaayi jaayi leer jaayi fukki kilo yi leer jëndee ko benn kilo lëndëm ci lañ commencé dund li ñuy dund loolu mooy lan mag ñi ko daan dagg kër day dagg ngan dem kër goo xam da ngay defee ni kii terrain football wala terrain basket lay dagg dina am sët ba am sëtër ñu ñëpp di tabax ci kër gi yént yàlla bi nee na su fekk continue gaaf day am ci jigéen ju bon lay nekk waruwaay bu bon kër gu xat kër gu xat nag dama koy firee kër ak quinze sur dix dégg naa sax léegi nag quinze sur dix wàññeeku na léegi ba demee biir Dakar quinze sur dix mi ngi wàññeeku ah dix sur dix sur quinze waaye la sept sax dégg naa ko quinze sur sept xaw ma mag subhanallah kuy doon jooy àll bu ne dix sur quinze ñu wàññeeti ko jigéen ju bon jigéen ju bon moom daanaka dégg mag ñi daan wax boo amul chance boo nekkee moom doo gudd fan lu tax ndax xol day dund te dund xol day def jeexintal ci sa dund te xol lu koy mettital bokk na ci li koy rey lu koy bànneexal daa bokk ci li koy tax a dund te jabar ju bon day mettital xol moo tax mag ñi daan lépp naan borom jabar ju bon foo ko fekk day gàtt fan waruwaay bu gaawul nag waruwaay bu yées jigéen ju bon ak oto bu ñuy puus moom kër guñ daje bu ne borom dina yàgg ñàkk benn moo tax yéen ci yàlla bi ay waxam sallallahu alayhi wa sallam wallahi tuuzanu bi mawaazini dahabi wal fidda waxuma la wax di ndax or la ak jamaa la waaye poids bi ñu ko war a peesee ndax or la war a doon sallallahu alayka ya rasulallah kër gu xat ndeysaan nga xam ne doo am néegu gan doo am lalab gan te mbokk yi daa bokk ci sunna nga tabax kër ba am néegu gan am lalab gan am boolu gan ñun léegi xewi na léegi boo yegsee nekk gan même bu doon bàyyi borom kër dama leen ko restaurant parce que boolu gan amatul moo tax yii mag ñi doon def wallahi yooyu mooy sunna man xaw ma xaw ma xaw ma daal dëgg dëgg dëgg yenkeewal gi leen yàlla yenkeewal bañ ko doon dund te li ëpp ci ñu ko doon dund sax jàngu fa gis nga kon gaaf ci loolu lay ne su ko defee léegi modernité bi ñëw waaw léegi xam nga il faut ñu wàññi njur mi xam nga nangam nangam léegi il faut ñu defar ay cité commencé ci ay cité naaj naayetal ko rafetal ko def ko benn néeg ak saal ak waaj xam buñu pare ni ñu koy tuddee defe naa dégg ngeen cité bugguma am doom xam nga loolu am na boo demee Dakar gi dañ ko cité bugguma am doom loolu moom dafa leer nañ moom wax moom firi na ma ko cité bugguma am doom te cité bugguma am doom nag benn booba la fi waaye jur nay doom yu bari nag cité bugguma am doom buggula am doom de waaye jot naa am doom ndax jur na doom yu bari tey boo demee cité yi noonu lañ koy tabaxee benn néeg benn saal douze ak waañ c'est-à-dire que mooy na nga yem ci benn jabar ndax benn néeg a fi nekk te saal bi yà yàggan nee ko moom na nga yem ci benn jabar doom yuñ màggee dañoom fuñ dugg kon na nga espacé naissance yi nga jur ñaari wuyu na fëgal ba la yàlla nattoo nga jël ñaari wuyu nag faf ci kër yi kee góor la kii jigéen la
waaye gis nga boo yaataloon kër gi ba mu yaatu def néegu gan boolu gan
ndeysaan maa ngi fàttali ko Dakar ndeysaan ci kër yi ñu daan dëkk bu fa ngénte mu saana xew wala kii e diw na dem kër fanaan kër bàyyi diw diw na dem fanaan kër bàyyi diw ñeneen ñi ci kaw terrasse bi am ñu far fanaan ci ëtt bi nag doxandéem yi waxambaane ñoom dañuy génn dem seen kër copain yi may nga leen liberté ndax daawul génn àll bi neen nga leen demee fanaane àll dafa nga musiba moo tax gis nga benn njàngalee l'islam benn porox ndol l'islam boo ko dribblee jàll di nga ñàkk lu ëpp la nga doon seen
kon gis nga bu ko defee bu kër gi melee noonu su ko defee liy am nag mooy yaatu yaatu am ay néeg yu bari am mën nañuy boole xale yi ñuy bokk fu ñuy tëdd waaye bu njëy ma ma doon commencé am ah ñu ne dama tëdd ci sama mag yu góor yow diw dama tëdd sa yaay
léegi nag li xew mooy da ngay ñëw ci kër gi fekk salle bi ñu meublé ko ba mu rafet lii fee lee waaye gis nga bu timis jotee yéen ñu meublé woon yëpp li ñuy tëkkati teg parce que fa la ñuy fanaan
li may wax bu waxuma lu bon la de lii bënu fekk li ñuy dund wàcc gi ñu wàcc njàngale islam moo ñu jural loolu
bu ñu xëyee faaw ñu defar salle bi parce que fa la nit ñi fanaan te waruñ fa woon a fanaan ndax salle fanaan tax ko woon yëpp ak ak ak ak ndeysaan nga gis koo xam ne moom ak ñeenti doomam ak nangam nangam ñuy bokk benn néeg bu ñuy fanaan loolu baaxul l'islam da koy tere ay musiba rek musibatun ala musiba musiba ci kaw musiba
waaye bu kër gi yaatu woon ñuy séparé góor ñi fee jigéen ñi fee li xale yi waaye leen naan góor ñi te góor ñi jigéen ñi te jigéen ñi waaw kay ku nekk dem fa nga war a dem sànq mooy misaal mi ne ñu mag mag mi ne fi mu ne
nekk ci diggat yi yor néegu sarala di gis fii di gis fee di xam kuy dugg di xam kuy génn booba góor daawul taxawaalu kër jàmbur ndax ku daan dugg dana la xam ku daan génn mu xam la ñuy làq jigéen ñi kon bu ñu demee tey ba làqum jigéen ñu am ñu ñu koy askane wallahi ñooñu dañoo fàtte wala dañoo xamut wala dañoo judd bari ci démb waaye fas alu seeni maam laaj leen seeni maam in kuntum la taalamun ndax seeni maam doon nañ dund lii te ñoom sax jànguñu fa
kon mbokk yi sunu borom ni kon nañuy yëglu comme ñeneen jiit doon yëglu ndax commencé nañ koo jox takaali nay julli
bu mu joxati loxo jigéen ku dul bàjjanam mbaa yaayam mbaa tantam mbaa maamam mbaa magam mbaa rakkam mbaa ko nàmpandoor ñooñu ñu mënta takk te ñooñu weesoon na xam ngeen
nay dem jàkka ja ñu di ko ci yar ci dem jàkka
gone di dem jàkka tuuga waay déet musiba la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam danaan jëli tàndaram dugal ci poos bi di wax xale yi kaay leen am ngeen alifas di tungam xale yi di leen neexal tàmbaram moo tax saa bu génnee jëm jàkka ji gone yi topp ko kon sa tere jàkka ji ku la ko tere sa tere leen jàkka gone ku la ko tere imam ahmad fajar yaayam da daan ànd ak moom ba ci jàkka ja taxaw ca buntu jigéen ña ni ko demal sàpp ba julli taxaw xaar ko ba pare mu julli ànd ak moom su fekkee moom julliwul ci mbooloo su dee julli mu duggaaleel moom ak biir
gone day leen jàkka de xadis bi naan jannibu sibyaanakum masaajidakum waxuma la dafa daay waaye munkar la mooy te loolu leen jàkka yi seen xale yi loolu xadis munkar la xadis xeet bi gën a bon ci xeeti xadis baaxut yoon ci bokk sallallahu alayhi wasallam gis nga di ko yar ca loola di ko ca tàggat di ko commencé responsabiliser léeg-léeg nga jékki-jékki ba mu yàgg nga génne dépense bi ni ko am demal jox sa yaay fekk li nga ci jublu mooy mu xam li bàyyi di joxe léeg-léeg nga jékki-jékki nga jox ko nangam ni ko demal jëf magasin ba nga jëndal ma ceeb fekk ñàkk ñàkk koo yónni taxut waaye da nga koy entraîné
boo dee ba yëg ni mi ngi commencé dëgër nga ne ko tey Dakar laa yenn yow laa dénk kër gi
di ko commencé jox masuuliya noonu la ñuy yaree gone moo tax da nga daan gis bu njëkkoon gone gu tuuti subhanallah nekk ku mat leen koy doyee lu tax parce que dañ ko ko teel a préparé jigéen ji moom daan jege yaayam yaay ji naan ko jigéen bu tollee fii day gis baax day nangam gis baax mooy lii jigéen kat day moytu aw luppam di feeñ ndax lupp woowee góor day joxe can sonn lambar lambari ci ay dàllam ba mu ba mu dagg ba sonn ci dem ca jàkka ja wax ca seen sa nijaay sonn ci ñu doog koy jox mu mën a xam sa lupp sa tànk nu mu mel kon warul ñàkk fayda ba mbileem lacc rek mu gis ko jigéen ji gëm loolu loolaa taxoon buñ gisee luppam mu daan jooy gis ngeen yaru démb ak yaru tey ni mu wuti
léegi nag yaay yi fi lay xëy soli ko kat liggéey kee nga amul saagam liggéey télé bi mooy yar moo tax ñu jël benn jigéen mu publicité ko gis baax nam lay jëfandikoo ci télé bi ak ak ak ak ak la yaay doon jàngale lépp télé bi di ko jàngale ak njàngale mu ñàkk kersa nag moo tax mbokk yi nanu delluwaat ci njàngale l'islam bu ñu bëggee am dund bu jàng
kon sunu borom subhanahu wa taala noonu la jàngalee su ko defee ngay yar noonu xale bi da ngay dem ba xale bi fanweeri at lay am rek li wala fi nan mën a sol daal lu bàyyam mu jox ko
moo tax sunu borom mu ni kadalika nii ngeen dégg nag yubayinu allahu lakum a lakum al aya ayati yubayinu allahu la yàlla di faram-fàcce ayat yi ay aayam wallahu yàlla alimun aji xam la xam gi mu xam moo tax muy wax li muy wax xakiim ku xereñ la xereñ gi mu xereñ moo tax mu defee ko ni mu ko defee nii ci kenn du ko ji insha allah du ciy wax du ciy jëf
ñu jël laay ji mu ci sunu borom mooy beneen a ngi nii ci taalimi min taalimi wala min nuuri suurati nuur beneen leer a ngi bu ballu ci leer ak suurati nuur bii nag moom bee ñëpp ko bokkoon bii waa kër gi bee mbindaan yi bii xale yu góor yi bii nag màggat yi kadalika yubayinu allahu lakum al ayat ñii la yàlla yi faram-fàccee aaya yi yàlla moom wal qawaayidu màggat yi wal qawaayidu meer yi min an nisaai ci ji jigéen ñi allati allaati ña nga xam ni laa yarjuuna nikaaxan dem nañ ba amatuñ xememteef ci sëy wala màggat nañ jigéen joo xam ne dem na ba passé âge ba muy sëyee ci nekkub meer laa wax nag jigéen joo xam ne dem na ba màggat jigéen joo xam ne dem na ba yëgatut bànneex ba jigéen ju ndaw daan yëg ci wàllu sëy jigéen jigéen dem ni da xam ni dem na ba daanaka bu ñuy waxtaanee mbir yooyu sax moom du ko yàqalub ràbb ba muy ràbb moom yëgut loolu yëgatut dara ci bànneex xemematut jëm ca kenn kenn nit xemematut jëm ci moom waaye laay ji li ma waxoon ko ne Dakar li may waxaat mooy maire yi Dakar moom bokkul ci moom da ngay gis koo xam ni màggat na ba toll foofa pastelu ba faaru ba xeesal waaye nag yàlla baax seet lu ngeen xeesalul ma yàlla xakim wallahu alimun xakim da koy def noo xam ni dafay timp tampa timp tampa ba yow daanaka yow doo bëgg nekk sax doo bëgg sax mu nekk sa yaay nag maa mu bokk ak yow daal
ànd ak xet goo xamante nii nag moom daanaka rek wallahu bihi alim li wala fi naan yàlla ay sum njool bu koy dóor da koy juutal moom la noonu la yàlla def subhanahu wa taala
gis nga
kon alqawaid min annisa mooy jigéen jamel na mu war a mel yaru jàpp njàngale l'islam defut lenn luy bijj ay bànneex waaye nag màgget na ba yéegatu foo xam ni foofa mooy comme ni ma la wax màgget ko am na lu ko l'islam may mu ni fa laysa alayhinna junahun ñooña sunu borom mu ni du aay amul bàkkaar an yadaana tiyaabahunna ñu dindi seen muuraay gu mag ñu dindi seen muuraay gu mag muuru muuraay gu ndaw rek bu simple wala sax ñu ne ci biir kër gi musóoru kese dara newu ci gis nga de aay bii ñoom maire yee ko jagoo waaye maire yii nag laa wax maire yii ma wax waxuma maire yi ngeen xam ma maire boo xamante ni tey bu laj koloñoo tagal faaru fastelu daanaka bu génnee xaw tuuti ko du xale bu góor di ko waaj a ànd ak moom ndax na mel
moo tax loo ci gis sa moroomu doom moo lay cokkaat sa moroom doom moom nga defee ci oto yi mu ngi la cof kaas bu ko defee ba wax la lu ëpp nag nga mer fekk yaa def lu ëpp yàlla tàggat ku ñëw wax la lu ëpp gis nga sunu borom ku xereñ la alimun hakim
sunu borom ni màggat yi fa laysa alayhinna junahun an yataana tiyaabahunna bu doon jigéen la ci doon muuroo jilbaab muy muuraay gay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam doon muuroo te njàngale lislaam jàngale ko mu am ci suratul ahzab am ci suratul nuur te faram fàccewu firi boppam kenn tuddeewu ko tur wi yàllaa ko ko tuddee nay leer de nay leer de du aaday ñoom maam naar du aaday ñoom maam tubaab du aaday kenn aaday yàllaa de kenn wutalu ko tur wi inventé wuñ ko de yàlla moo ko ko tuddee yuduniina alayhinna min jalabibihinna nga lu tax mu ni dalika adna an yurafna dellu leen ci dictionnaire yi man jalabibi wala boog loolu nag tekkiwul comme ni ko nit ñi defee nag comme li may faral di wax mbokk yi mooy forme bi na mel nii na mel naa ba wàcc déedéet tekkiwul loolu nag moom forme bi na mel nii mel naa mel na déedéet ndax boo demee Inde la ñuy tuddee jilba boo demee Espagne bokkul nuroowuñu boo demee Yaman la jigéen ñi tuddee jilba boo ñëwee Arabie Saoudite ak li ñu fi tuddee du ko bokk boo demee Arabie Saoudite ñoom lañ koy tuddee ak ñun Sénégal boo dikkee duñ bokk waaye lépp lenn li la nga ne ma lan mooy lenn li ma ne la muuraay gu jot muur ca kaw ba ci suuf allahu akbar lu ne nga dégg nag kuy saboote lu mel noonu barki démb damaa toog toog biir Dakar bi ndékk benn jigéen romb bu muuru sol lu seere ma dégg ci ma toogal di wax ni ah kii moom moom sañseen bi jekk na kat lii de moo ma gën a ñuy sol mel ni ñu sol lu baax ñuy sol baax di libéri libéri kenn du xam ne ñuy sol lan la waaw wax na dëgg de moo ko gënal wax na dëgg de waaye lii mooy njàngale yonent bi de wallahi laabi mooy njàngale yonent bi tamassak bi an hadyi muhammadin jàppal ci hadyi muhammad bul ko jàpp lu tolla tarfatal ayn boo dajeeg moom kontaan kon ñooñu su doon jilbaab la mën nañ koo dindi bu doon muuraay bu rëy la islam may na ñu dindi ko muuroo bu ndaw su fekkente ni maanaam ci biir kër gi la mën nañoo musóoru rek toog maanaam daal oyofal gi ñu leen may mayuñ ko jigéen ju toll ci góor di xemem jëm ci moom waaye nag lay wan ni du jigéenu Dakar tax li ci suñu borom teg xëyra mutabarrijatin bi diina mooy buñ ca jublu nag wane taar barak barak yi ah mag kaw peinture kaw xef yi peinture tuñ yi ah te bala ngay xam ni maanaam gis nga yëf yi dara wóoru ci waay mais koo xamante ni day masque lépp day masque lépp nga xool ko defee ni nii la rafetee nekkate yoo daal yëf yi moom ça ne va pas demeewut noonu day rëdd fii rëdd tuñ bi wat fii te yant bi di ko tere tagalu def la muy def xeetal ah kooku xëy lay wane taar kooku dañ kaa tere mu génn fam Abu Hurayra bu ñëwoon Sénégal benn mbedd lay jaar rek dee Abu Hurayra bu ñëwoon Sénégal rii boo ko dugal ci Dakar foofa lay dee daa romb ñaari jigéen xam nga jigéen ñi nuñ def muuroo jilbaab ba mu jot mel nan war a mel ba muur seeni kanam Abu Hurayra ni pëyi ñu ni pëyi parfum xeeñ ko mu ne ko parfum ñu ni ko yéen mu ne billahi du ngeen dugg jàkka yonent lu dul da ngeen sangu ci sangu bi sax bu dee bu ñëwoon Dakar lay sànn xam naa naqar moo koy rey mu dee bu fekkee parfum bi xeeñ te jigéen ji sol na lu jot moo tee mu ne ko doo dugg ci jàkk ji yemul ci sumb ji ko yemul ci sangu jël sangu jël sangu set la ko wax ndax li nga def daa garaaw suñu borom mu ni ñii nag fa laysa alayhinna junahun lu ñam bàkkaar an yadaana thiyaabagunna ñu summi seen yére yi wala muuraay yu mag ya wala boog seen musóoru kese yem ca xayra mutabarrijaatin bi diina bu fekkee jubluwuñ ci wane taar bu fekkee jubluwuñ ci wane taar kon l'islam may na leen ndeysaan xoolal sunu borom ne wa an yastaafifna waaye sax ñu bañ a def li leen yàlla may ndax li am féexal la yàlla da leen a féexal tuuti ndax màggat la lifir lifir ji bari ci xëy na moom dana ko sonal ndax moom màggat la la ñuy tiit ci ndaw ba tax ñu leen ko ëmbal li lépp muur ko mu tiituñ ko ci moom moo tax ñu may ko lii waaye liñ la koy may may may dagan na nga def ko tekkiwul ni mooy def ko léegi jàngalekati fiq yi dañuy juum foofu nag dagan na ak war na dagan na ci man ak war na ci man ma def ko dagan na ci man mooy sañ naa koo def waaye su ma neexee sañ naa ko bañ a def war na ci man mooy def par force boo deful am bàkkaar kon waan yastaafif na mooy boo ko ñàkkee def xayrul lahunna loolu sax gënal yàlla te moo gën ci yéen ndax léegi tey boo ko defee benn paa bu ñàkk fayda ñëw fekk la fii gis ni yaa tolloog moom kalaam mu cokkaat la gis nga de am na ñoo xam dañoo dañoo dañoo ñàkk ful la dañoo ñàkk ful la dañ lay fekk nga mel noona nga mel l'islam may la lam la may nga def ko ñu ñëw cokkaat la da ngay mosoo ñu ah yow sa tagal bi jekk na tey kat maa la lalal naa nga ma ne ko bëgguma li ma lalal boo koy lalal wutil koo ko lalal jigéen day am fulla gàtt ay tontu wex ko xat ci bu jëmee ci góoru jàmbur nag ngay leer jigéen day am fulla am fayda gàtt ci tontu weexle ko lool comme kaani bu dee ca góoru jàmbur la jëm nooy kàddu oyoftal ko suufeel ko bu dee ci sa borom kër la jëm wallahu alimul hakim yàlla ko xeer na te nii la ko jàngale am na benn jigéen ju mag ñoo xafsatu binti sirin xafsatu binti sirin mooy jigéen jooje nga xam ni ndeysaan mbindaanam moo doon wax naan man damaa yaakaar ni sama njaatige ni daa tooñ yàlla tooñ goo xam ne yàlla du ko ko baal ba àllaaxira ñu ni ko lu tax mu ni gée bu ma ko defaree lee reer ba mu reer ba tëj bunt bi te bunt bi lay tool di ko dig muy julli di jooy di julli di jooy di julli di jooy ba fajar jot te guddi gu jot noonu lay def man ma yaakaar xanaa daa tooñ yàlla di ko nëbb fekk di du loolu de ragal yàlla moo yeggoon foofu xafsata bint siirin benn bis benn sëtam daa ñëw ni ko waa maam yow xanaa jàngoo aaya bi yàlla naan laysa aleykum dina an an yadaana thiyaabakunna yow da nga mun sa noppal sa boobu nga yëkkati sa jilbaab bii ñun sëti dong ñoo fi nekk xale ba daal di yem ci an yadaana thiyaabakunna gayra mutajarribatin li ziina maam ji ni ko jàngal la ca topp mu ni ko an wa an yastaafif na xayrun lahu na moo ci topp kay mu ni ko ana min al mustaafifaat man damaa bëgg a bokk ci ña nga xam ne wa an yastaafif na la ñuy jëfee allahu akbar ragal yàlla bi fii la tolloon liñ la may lépp doo ko jël imam ahmad daan wax ni nangam dagan na ca jàngalekaay ba doomam saalix wala doomam abdallah bu ñëwee ci kër ga ñu ni ko am mu ni déedéet man du ma lekk loolu nangam mu ni du ma def loolu ñu ni ko xanaa du baa yaa waxoon dagan na mu ni du lépp lu dagan luñ la may nga jël ko mbokk yi nii la ñu mat ñu doon dundee sunu borom mu ni wa an yastaafif na bu ñu fegoo de bañ a jël liñ leen may lépp xayrun la gun na moo gënal sunu borom moo gën te ñoom it nag xayrun moo gën la gun na ñeel leen ba góoru jàmbur du leen cokkaas du leen yem tey seen ciyaaba gën a bari wallaahu yàlla nag samiun mi ngi dégg lépp képp koo xam ne buñ fi jugee yaa ngi critiqué naan kii lim doon wax aaday ñoom bàyyi jiwa samiya yàlla nee na maa ngi lay dégg baax na wallahu yàlla samiun aji dégg la képp koo xam ne buñ fi jugee da ngay wax naan ñii seen muuraay yi daa ëpp ak dañoo soof ak dañoo nàngam wallahu sami yàlla nee na maa ngi dégg rek alim yàlla nee na xam naa ñi nga xam ne dañoo ragal moo leen teree wax loolu am na ñoo xam ne ña nga denc ci seen xol bi yéen a ëppal waaye ñemewuñ koo wax wala am na lu ñuy rus alim yàlla mu nga xam naa li nga denc sa dënd bi kon wallahu yàlla samiun dégg na lépp waxal ca kaw waxal ci suuf booy déeg booy yuuxoo ci yem saxaaba yi dañ doon ñaan di ne allahumma di wax ca kaw yéen tamit ni hey yéen li ngeen def mooy def yéen ci ngeen di ñaan daa tëx daa muuma daa gumba ba ngeen di yuuxu ca kaw mu ni am leen ak yar ki ngeen di ñaan samiun qaribun mujibu daawaat da leen a jege tey dégg tey nangu ñaan waxal naa loolu mooy tekki kon wallahu yàlla samiun aji dégg la alimun aji xam la mbokk yi ci yàlla nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala bi asmail husna wa sifatihi al ula yàlla na yàlla defal nu alquran mu sax ci sunuy xol màgg fa màggatee fa ba jur fa ay bànqaas ba ñuy mën a meññ coo ci leer bi ci bàyyi ko اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا الى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه اجمعين